jërë ngeen jëf euh, ci ànd bi ngeen ànd ak euh, seen rajo Sud FM mbokk déglukat seen rajo Sud FM quatre vingt dix huit point cinq amaan nañu mbégte rek teewaat fi ñu àddoo ngeen di teewlu si seen émission loo ci xam euh, seen émission loo ci na comme ni koy defee samedi ju gannaaw nag bu ñu gërëmee bu baax sant ñi nga xam ne tamit ñoo ñuy gunge si émission bi di ñii di waa ONAS bi si nag li jëm ci wàllu daal canaux d'évacuation yeeg yëpp yi jëm ci wàllu ouvrage yi ñu mën leen ci jàppale tamit loolee mu a waat delluwaat ci bokk na ci moo mu di pharmacie nationale d'approvisionnement euh, jëm nag ci li nga xam ne mooy la ñuy jàppandalee lépp di garab euh, fépp foo dem rek ci produit essentiel yi mën ngeen ko euh, am kon nu moo gën a jàppandee rawatina nag ci fi nga xam ni moo di bërëb yu gën a sori ba tax ni pharmacie nationale d'approvisionnement gën a yombal jegeen ñi nga xam ne tamit ñoo di askan wi ak paj yi ba loolee tamit seen i bërëb yooyu nga xam ne nag fa la ñuy jaay garab yi daal foo dem di nga fa fekk seen i produit mu gën a yombee ci ñëpp boo tax ni tey euh, dañ ko nuñ ko defee woon rek ci euh, samedi wees aussi tey dañu ñëwaat rek euh, tey suñu benn gan bi nga xam ne nag daanaka tey moom la ñu woo ci émission loo ci xam gannaaw nag ba ñu nuyoo ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy ñu ngi ànd rek ñun sur seen rajo su FM quatre-vingt-dix-huit point cinq tey ñuy waxtaanee ci lu jëm ci wàllu ñi nga xam ne nag moo di benn kuréel bu am doole buy yëngatu ci wàllu développement ak lépp lu jëm ci wàllu sensibilisation bokk na ci tamit ñu gën a taxawee lii di askan wi tey nag. li nga xam ni moo di émission bi euh, ñi nga xam ni nag ñoo di cadre des religieux pour la santé et le développement di CRSD euh, ak collaboration ak ministère de la santé ñoo leen koy jagleel waaye nag lu ñu si gën a bëgg waxtaanee bokk na ci sit seen taxawaay euh, ci jëm li nga xam ne moo di développement économique social ci li nga xam ne nag moo jëm ci wàllu dëkk bi seen rôle ci cay joué bokk na ci tamit euh, CRSD ci li jëm ci wàllu nu muy xeexee Covid bi gis nañ nag temps yi euh, xawat na euh, tar lool ci fànn woowu tamit ci wàllu planifi planification familiale seen taxawaay ak li nga xam ne nag moo di seen lëkkaloog ministère de la santé mu di ay ponk yoo xam ni tey dinañ ko gën a yaatal gannaaw nag ba ñu dalalee ki nga xam ni moo di imam Ahmed Tahi kan bi nga xam ne nag moo di président euh, de l' association des imams et oulémas de euh, de Kaolack ba te su kanamee nag dinañ ànd ak sëñ Massamba Sall bi nga xam ne moo nekkee ci ministère de la santé moom tamit par téléphone euh, gën a tamit yaatal waxtaan wi seen taxawaay ak lu jëm si seen wàll lëkkaloo imam imam Ahmed Tahi ñu ngi lay nuyu di la dalal si émission la ci xam. sëñ Thiam maa ngi lay delloo nuyoo di jaar ci yow di nuyu ñi nga seqal barab bi yëpp. di nuyu itam kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi ci barab bi imam Alioune Sall ñu ngi koy nuyu El Hadji Maodo euh, Faye ñu ngi koy nuyu mm-hmm. ndax ñoom la yàlla def ñu yore wàllu diine ci barab bi kon bu dee nitu diine bu ñu agsee fii war nañ leen a nuyu jox leen seen wàccuwaay mm-hmm. euh, di nuyu mm-hmm. ak ak sëñ Mbàkke Sylla jërëjëf euh, di ñoom ñëpp tabaarakallahu maa ngi teg sama nuyoo ci sa loxo nga jàllaleel ñu ko auditeurs Sud FM yëpp di nuyu itam euh, euh, waa Sénégal yëpp. Mm-hmm. Euh, rawatina ci di nuyu CRSD cadre des religieux pour la santé le développement. Mm-hmm. bu ñu jaaree ci Serigne Saliou Mbacké mi nga xam ne mooy président ba. Serigne Saliou Mbacké waaw. Mm-hmm. rek daanaka nuyu nañ ñi nga xam ne ñoom la ko seqal ñëpp. di nuyu itam ñi ŋànk wàllu santé ci biir réew mi. yow yaa maanaam li nga xam ne moo jëm ci wàllu. commission culturelle bi ak euh, scientifique bi ci CRSD euh, CRSD boo ñu ko doon euh, présenté tey seen taxawaay ak CSD lan la. waaw CRSD mooy cadre des religieux pour la santé et le développement. Mhm. mooy kuréel gi nga xam ni moo lëkkale këru diine yi di jóg <coughs> di liggéey ci lépp luy jëmale kanam réew mi. Mhm. ak it nag di jàppale ministère de la santé. Mhm. ci euh, liggéeyam bi nga xam ne mu ngi koy liggéey ci réew mi. Mhm. parce que xam nga <clears throat> li tax ñu dugg ci loolu euh, mooy di ni ci wàllu santé dafay am ay sujet tabu yu bari. yoo xam ne nit ñi duñ ko nangoo aborder. CRSD ñëw nag euh, ànd ak ñoom. di leen ci jàppale. lépp luñ ci war a leeral rek ñu leeralal ko. teg ko rek nag ci benn aaya bu wér peng. mooy fas alu na laaj ahla dikri. yi seen xam màcc jëm ci wàllu googa. Mhm. bu ngeen bañee juum. dëgg la voilà waaw kon tey euh, maanaam CRSD taxaw na tamit pour gindi nit ñi wala ñu bëgg a gindeeku ci li nga xam ni mooy ay dogal yu am nan lañ ko war a méngaleeg ak euh, li si taxawaay diine. waaw xam nga. <clears throat> Euh, comme ci wàllu développement. waaw euh, lay yëngu. Mm-hmm. développement nag euh, dafa nekk ay pàcc. yu bare bare bare bare. bu ko defee pàcc bu ci nekk rek CRSD am na ca yoon. Mm-hmm. nu mu mën a gindee askan wi. wala mu accompagner leen. ba nga xam ni lañ ca bëgg daañ ko am. te mm-hmm. du ñu waroo. ak li nga xam ni mooy seen diine. ko defee nag kon eh, da ngay dégg ni kon CRSD ci lépp la yëngu. ci wàllu suqali réew mi ci wàllu économique. ci wàllu luy boole këru diine yi. parce que boo ko seetee mboolem këru diine yi kenn ku nekk am nga ci représentant. Ah, parce que en dehors. Mhm. de sama qualité en tant que euh, responsable scientifique. Euh, et et culturel. Mhm. du CRSD euh, man maa fi toogal la famille de Léona Kaneen. à Kaolack. waaw te yaay imam ratib Kaolack. <laughs> <laughs> jërëjëf. waaw waaw kon gis nañ ni fu mu ne nii. dañoo gis ni euh, maanaam ñi nga xam ne tamit ñoo di daal jóge ci foyer religieux tamit taxawatuñu euh, rek yem di yor di maanaam jàngaleeti comme ça da ngeen bëgg dugal seen loxo ci développement waaw est-ce que loolee da di loo xam ne tamit euh, nu ñu xamee woon sëriñ si ñëw toog rek jàngale alxuraan dem ñu jox ko àllarba ak des trucs comme ça loolu ngeen bëgg soppi soppi wala. <laughs> daanaka bu fekkoon ni mën nañ ko soppi tam ñu soppi ko ndax l'islam. day une religion de développement. waaw nekkul religion boo xam ne dafa figé. yem mhm. ci benn barab rek alors du du du du du du du dëppoo ak li nga xam ni mooy ñëw. Mhm. ci jamono te sax yonent bi fekkee wut nga woon. sallallahu alayhi wa sallam waaye nag fi mu nekk nii dañu toll ci aaya ba lam ñu waxoon. Mhm. mooy ma faratna fil kitaabi min shay'in amul lenn loo xam ne yàlla bàyyi na ko en rat maanaam ñàkk na ko bañ a wax wala mu ñàkk ko. Euh, bañ a détaillé mhm. ci téeréem bu sell bi muy alquranul karim donc kon euh, ñun bi ñu ñëwee euh, xëy na am na benn wuute bu ñu wuutalee ak ñëwoon démb waaw du dëgg parce que mhm. ñëwoon démb dafa am jamono bu ñu doon dund ñoom ci seen mhm. bopp yàlla baaxe woon na leen tabaarakallahu nit ñi déggal leen nit ñi gëm leen ñu téere yore téere yàlla bi di leen ci gindi ñun ñëw ñëg ci beneen jamono boo xam ne jamono bi mooy xam-xam dafa développé. waaw kenn ku ñu nekk dem bitim réew. Mhm. jàngi indi sa xam-xam. te loolu it lislaam bañu ko. Mhm. ndax utlubul ilma walaw fi siini. Mhm. loolu la yonent bi wax. donte Chine populaire la sax. xam-xam buy jariñe bu fa nekkee. demal nga jàngi ko nga indi ko. xam-xam yooyu yëpp nag bi ñu ko indee nag mu jur nag benn euh, euh, ñàkk digg. Euh, l'islam. parce que léeg-léeg mbir am rek. waaw ñu ni waaw euh, yoonu diine nekku ci. Mhm. yoonu lislaam nekku ci. Mhm. te loolu nag euh, du mën a nekk ndax boo ko gisee. Mhm. Euh, téere yàlla bi muy alquranul karim. mais li ñuy wax amendement constitutionnel. mais l'islam moo ko njëkkee. est-ce njëkk indi amendement constitutionnel la constitution de l'islam maanaam mooy. alquranul karim mhm. waaye ci biir alquranul karim mhm. fekk na ci li ñuy wooyee annaasix wal mansuux mhm. annaasix wal mansuux mooy lan mooy aaya bu daan atte ñu indi beneen aaya teg ci wetam folle atte bale di atteloo aaya bi kon loolu dafay wone ni kon euh, constitution lislaam euh, bañul dégg nga données changé ci société bi moom itam mu changé taxaw taxawaay pour que ñu mën ci adapté. maanaam ci contexte ngeen di demee en même temps. waa waaw mais gis nañu actuellement kon euh, da ngeen bëgg a changer paradigme léegi ndaxte euh, man euh, léeg-léeg ñu ne imam bi waaw ay ca kaay ñu wàccee ci alxuraan bi ñu def groupe wala des trucs comme ça kaa ñu tuddi xale beeg yooyu mais yéen na ngeen ban vision ngeen am nangeen ngeen jàngatee li nga xam ne moo di développement ba tax ni yéen da ngeen si bëgg a dugal seen loxo surtout nag contexte bi ñu nekk ñoo ngi wax ci wàllu relance économique ak yooyu yëpp ak yooyu imam ce que maanaam religieux yi war nañ si mën a dugal seen loxo ndaxte gis nañ léeg-léeg tamit ñoom ñoom euh, ñu même sur le plan euh, bu ñu deful sax des projet waaye tamit ñu ñu gis nag bay la ñuy gën a def ak yu mel noonu. <laughs> waaw xam nga euh, wax nga sànq. nga ni léeg ñu ni imam bi kaay tuddal ñu doom ak yu ni mel. Mhm. foofu dinaa la fa indil benn pàcc bu ndaw. Mhm. bu lay won ni CRSD mi ngi ci mi ngi def loxoom ci wàllu développement. xam nga tey ji am na ONG yu bari. Mhm. ci bitim réew. yooyu financer réew mi. pour que ñu mën euh, xale yi ñu leen di wutal ay acte de naissance di leen inscrire. Mm-hmm. Mm-hmm. ci li nga xam ne mooy registre euh, dégg nga bi nga xam ne moo nekk ci mairie bi. Mm-hmm. man damay wax toujours ni. Euh, loolu du ONG moo ñu koy jàngal. waaw loolu fekkoon na lislaam jàngal ñu ko ba pare. ni ñu ko lislaam jàngale moo di ma wax la benn affaire tey jii ngénte. ni ko lislaam tërale mhm. ak niñ ci wootante ak niñ koy yëglee mhm. yaakaar naa ni moo ëpp impact euh, boo demee di déclarer xale bi ca mairie ba xëy na foofa mhm. mbind ma moo fay sax waaw waaye su ma la fekkee ci mairie bi man ak yow rek ñooy déeyoo Mm-hmm. daal di indi samay këyit mm-hmm. nii la dama am sama doom nii laa ko tuddee ñun ñaar rek koy xam de mm-hmm. waaye su fekkee nag dem nañ ci wàllu lislaam <laughs> yonent bi ni nañ ko génne ci pénc ma ndax ñun ñëpp jàng nañ ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ni moo njëkk a judd ci waa lansar eh, ci ci ci muhajiroon yi eh, tabaarakallahu fekkoon na eh, yahud yi ak ñañ ko siqaloon ca booba jamono di leen nga nga wax ni ah bàyyi leen rek amul solo seen diine ji du jëm fenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nañu génne xale bi ci penc mi ñun ñëpp ñu tudd ko bu ñu ko tuddee mhm. masalan tey jii ñëpp fekke ko mhm. Caam fekke na ko El Hadj Alioune Sall fekke na ko diw mhm. fekke na ko kenn ku nekk ah, tuddee ah, na ko <laughs> diw xam nga kooku moo gën a siiw moo tax damay wax ni ONG ku ah? nekk vecteur ngay doon transmission mu ngóor de transmission moo tax ma ni ñun l'islam Mhm. Euh, du ñu jàngal. du astaghfirullah ñun ONG. du ñu jàngal naka la ñuy def ba mën a. Euh, siiwal suñuy doom inscrire suñuy suñuy. xëy na nag ñoom mbind mi nag. tabaarakallaahu mhm. ñoom ñoo ñoo ñoo ñu ci njëkk a Euh, jiitu ñoo jiitu xam kon nag tey jii bu fekkee ni mm. mbind mi day tax tur wa des fa da de mm-hmm. naissance ba des fa mm-hmm. saa yoo ko bëggee vérifier nga dem seeti ko ko mais loolu dafa nekk lu am am solo te damay wax ni kat mm-hmm. ci jamono yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkoon maire yi nekk fa ca booba jamono uh-huh. dama ni ku mu tudd dana dem inscrire ko foofa jërë ngeen jëf kon nag euh, ñu ànd ak euh, suñu euh, gante di Ahmed imam Ahmed Taqi kan maa ngi jégalu di imam ratib bu kaw Kaolack même sax tiitram la bu ko <laughs> bëgg ñu ko waaye tamit teew loolu tam waaye lu tax mu teew fi moo di moom tamit moo di président des de l'association des imams et oulémas de Kaolack waaye tamit bokk ci ki nga xam nag moo di responsable cellule culturelle ak scientifique bu CRSD tey ñu waxtaanee rek taxawaayu ñi nga xam nag ñoo di religieux ci développement social et économique donc di Sénégal yaa ngi doon ci modèle euh, de développement bi ngeen bëgg ak tamit ni ngeen dugale impliqué seen loxo ci wàllu euh, li jëm ci wàllu li njëkk ci doomu aadama ñu séntu ko mooy ñu xam ko identifier ko mu di nag état civil euh, loolu tamit lu am solo la mais yéen suñuy gis ni ci wàllu model de développement bi ngeen di proposer lan la est-ce que modèle de développement islamique la te te ñu ngi si dans un pays laïque wala da ngeen bëgg tamit joyanti wala xool daal li nga xam ne nguur gi jël na ko est-ce que ngeen ci léeg sax indi seen kàddu Euh, duñ ko bañ a tuddee euh, model de développement islamique. Mhm. waaye bu fekkee ni modèle de développement islamique modèle bu mës a rafet rek. Mhm. ñeneen ñi dañ ci daan war di roy. dëgg la. parce que boo xoolee suñu constitution ak suñuy suñuy loi mhm. dañu roy ci lu bare bare bare am na loo xam ne lii ci biir diine lislaam lañ ko jëlee mhm. lii ñu ngi ko puiser ci yeneen loi ya nga xam ne am na ci tugal wala am na feneen mhm. donc kon duñ ko bañ a tuddee li ñuy wax euh, modèle islamique de développement waaye bu ñu ko tuddee noonu nag da ngay daal di gis ne ndeke ndeke kon model boobu euh, il est universel waaw ñëpp mën nañ cee euh, jariñoo parce que l'islam est une religion boo xam ne dafa ñëw poro alam bi yëpp moo ko tax a jóg kon tey jii programme buñ ci génnee rek eh, tabaarakallahu programme islamique lay doon waaye day programme boo xam ne bu ñu ko étaler eh, ba ñi ko war a jariñoo jariñoo ko mm-hmm. daañu gis ñi àdduna mm-hmm. bi yëpp daañu daañu ci roy d'accord ñu jëm euh, kër docteur daal di jël la fa xew après daal di ñëwaat ci situation covid bi waaw kon euh, ñu ngi ñuy wax ni commencé gul ak Alassane ñu xaar tuuti kon nag euh, ñoo ngi doon wax ci wàllu modèle de développement bi yéen soo leen doon proposé actuellement la ngeen gis ndaxte gis nañ ni fu mu ne nii développement dafa war a jaar tamit ci ndaw yi te ndaw yi liggéey ñu wala sax euh, léeg-léeg est-ce que wala xeeb benn liggéey wala nit ki ban liggéey la war a def pour gën a suqali xam yooyu est-ce que leen ci taxaw di ci ñaax askan wi. wàllu xeeb liggéey. Mhm. ko mës a xeex. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da wax ni. Mhm. nee na na ngeen fexe ba mel ni picc yi nee ndax picc bu xëyee suba teel buy génn uh-huh. dara du ne ci biir bi dëgg la te du bàyyi dara ca tàgg ma uh-huh. waaye nag bu demee bay delsi uh-huh. dana fekk biir bi fees dell dëgg la dana fekk jox bi nga xam ne ci lay denc li des ci lekk gi fees dell su ñëwee ci tàgg mi njaboot ga mu fa fekk ñuy ay doomam ñëpp euh, wut si ko kenn ku ci nekk muy goqi di la jox sa wàll euh, kon Euh, liggéey diina lislaam mhm. euh, daf ko mës a diggee mhm. ndax euh, gisoo suñu borom dafay wax ni mhm. wa min kulli shay'in xalaq naa zawjayni nee na loo gis rek paire laa ca bind guddeeg bëccëg ay paire lañ kaw ak suuf nombre paire la du dëgg mais l'islam kan lay kan mooy seexandoolam waaw ban paire lay àndal uh-huh. pour mu mun a nekk paire loolu nag yaa ngi koy xamee ci boo demee ca téereem bu sell ba fa muy waxee ni fa ida qudiyat salaat nee na fantashiru fi l ard saa yoo xamee ni julli ngeen ba sëlmal ca jàkka ja lay mottali diine ja mhm. mooy ni leen ñokket jóg daal dem kenn ku ci nekk na tëgg ba dellu ca mbaar ma mhm. na na maçon ba dellu ca chance ba mhm. na bureaucrate bi dellu ca bureau ba commerçant bi na dellu ca magasin ba mhm. wabtaxu min fadlillah li yàlla bind ci ay wërsëg ngeen di ci wut ci anam boo xam ni anam bu légal la loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mësa promouvoir euh, euh, liggéey waaw mais gis nañ léeg-léeg ñenn ñi ah man li ma am doyut ak fu mu ne nii phénomène bu xew est-ce que da ngeen jàpp ni Sénégal développement bi moo des boo tax ni ndaw ñi di fëq di jël gaal yi di dem wala des trucs comme ça est-ce que développement bi ñu séntu fii ci Sénégal euh, am na lu lu teg la lu tegu la wala. jërëjëf euh, développement bi ñuy doon séntu ci Sénégal. Mm-hmm. Mm-hmm. àggaguñ ca. Mm-hmm. bu ñu waxalee dëgg rek te yàlla tax. te dinaa la wax benn ci sabab yi tax. àgguñ ca. mooy dañu ci associé wul woon ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi. kilifa diine yi. dañ leen ci associé wul woon. dañoo jàppoon rek nii euh, ki jàng diine l'islam. fii rek la mën a yem. ah kon si lan leen di utiliser mbaa du si politique bi rek. <laughs> mu nga saa yoo soxlaa nag. Ah. seen i ah. daal di leen approché. Mhm. et eh, tabaarakallahu lu ne nga defal leen ko. Mhm. léeg mu am ci ñu faible ñoo xam ni. et eh, tabaarakallahu yaa ma ko gën a xam. Mhm. Eh, bu ko defee dañ leen di fekk si ca loola. bu ko defee nga xam ni kon développement bi ñu doon séntu ci réew mi. àggaguñu ca. Ah. waaye nag ñi ngi ci yoon wi. ñoo ngi ci yoon wi cadre des religieux pour la santé et le développement. Mhm. mi ngi leen di accompagner. parce que c'est un cadre boo xam ne ni ma la ko waxee sànq. Mhm. nee naa la kilifa kilifa diine yëpp ci am représentant. dëgg la tey jii Cheikh Bou Kounta ci Ndiassane ma ngi may dégg. waaw moo leen fi teewal. Mhm. Cheikh Jibril Laye. ca Laayeen ma ngi may dégg. El Hadj Adi ca lew na Niassène Kaolack. ma nga ma mi ngi may dégg. Chérif Omar euh, Chérif Sy. dégg nga fi famille omarienne. loolu yëpp di ay kilifa yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi fi tey jii. Mhm. alors euh, dañ leen boolewul woon nag ci mbir mi. Mhm. ñu jóg nag gis ni ñoom it ci lañ bokk. ku leen ci boole ñu bo bokk ci. ku leen ci boolewul ñu bokk ci. Mhm. ba ñu jógee nag di dox nag. di tette. Euh, gouvernement bi ci wàllu naka la développement war a demee. ci askan wi. gis nañ ci ay résultat parce que parce que association lañu njëkke njëkkee. waaye mujj gi ñu nekk ONG. Ah. ci diir bu gàtta gàtta gàtt mhm. c'est parce que état bi dem na ba gis ni mhm. ñii am nañu njariñ ci réew mi mhm. te seen loxo ci biir développement bi dana yombal li nga xam ni moom la Euh, nguur gi bëgg. mais mais justement parce que aussi euh, lu ñu wax béy sa say weewu tànk est-ce que euh, dëgg la ñoo ngi ne bon modèle de développement bi ngeen proposé moo di modèle islamique mais tamit am na solo waaye tamit lu ñu wax ci béy si say weewu tànk gis nañu tamit daara yi est-ce que mënuñu jaar te léeg-léeg daara yi dañuy bëri di laaj mais est-ce que leen ay loo leen naal tëgg pour que li nga xam ne moo di daara yi am benn autonomie si seen wàllu bopp ñuy liggéey di mën a am dara tere tamit li nga xam ni moo di yelwaan bi pour permettre li nga xam nag moo di économie boobu mu mu dox. jërëjëf euh, léegi la daara yi commencé di yelwaan loo xale yi. Mm-hmm. waaye ca démb. demeewuloon noonu. Mhm. na mu demee woon démb. waaw mooy sëriñ bi day am ay centaine de taalibe. waaw daal dagg nag ay tool. tool yooyu nag taalibe yi ca la ñuy bay. Mhm. te taalibe bu mës a nekk ci tool di bay daan nga am sas tool su ndaw soo xam ni. Mhm. yaa ko moomal sa bopp. ah oui waaw. bu ko defee tool bu mag bi li muy génne. moom la sëriñ bi di dundalee taalibe yi. toolu taalibi bu ndaw bi bi muy bayal boppam mhm. ci la daan amee as lëf lu muy seetee ji ay bokkam lu muy jëndee ay yére ak yu ni ak yu ni mel mhm. loolu modèle boobu la fi sëriñ si indi malheureusement bi nga xamee ni gars yi ñëw nañ gis ni yalwaan loo taalibe bi mhm. dafa nekk loo xam ni da leen di apporter ay revenu ñu daal di ciy dugg daal di ciy dugg nañu nangu ni nag nañu nangu ni euh, foofu moom Euh, munuñ fi d' accord xam nga man dafa am loo xam ni mënuma ko nangu sëñ bi mm-hmm. Mm-hmm. man da may présenter élève bi nga xam ni mooy jàng ci école nasaraan yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM quatre vingt dix huit point cinq tey ak euh, seen émission lu ci xam euh, ñu ngi dalal euh, comme ni ñu ko waxee rek imam Ahmed Taaxi kan bi nga xam ne daanaka moo nekk responsable cellule culturelle ak scientifique bu CRSD bi nga xam nag kuréel boo xam ne nag dafa ëmb ñi nga xam ne nag ñu di religieux yëpp ngir rek dugal seen loxo ci wàllu développement Sénégal ak tamit lépp loo xam ne rek tamit luy suqali li nga xam ne moo di réew mi la ñoom bëgg nañ see dugal seen loxo ñoo ngi doon wax ci lu am solo euh, fu ñu yemoon suñu tomb ci maanaam euh, nan la ñu war a gën a mën a joyantee pour que nag économie bi nga xam ni moo di mën nañ ko économie locale euh, jëmale ko ci ñi nga xam ne daanaka ngi nekk ci yéen jàngalekat yi ñu mën a am loo xam ne dañ si mën a développé te mu doon loo xam ne rek dañ koy tàll loxo wala dem jëlee ji ko ci ñeneen mm-hmm. waaw xam nga ñu ngi nekkoon ci li nga xam ni mooy xale yi ñuy yelwaan loo waaw ma waxoon la ni la mm-hmm. buñ delloo woon cosaan. Mhm. daawul demee noonu. sëñ bi daan am toolu boppam. Mhm. taalibe yi di ko bay di ko dundee ci biir daara ji. Mhm. ci biir loolu it taalibe yi kenn ku nekk am sa tool. soo xam ne yaa ko moomal sa bopp di ko bay bu ko defee ca loola ngay amee it sa yëfu bopp. loo xam ne ci ngay dimbale say wayjur. Euh, système booba nag moo jeex ci réew mi. Euh, parce que léegi euh, tabaarakallahu li fi nekk mooy taalibe yi lu ñu bay. Eh, ngir eh, dundee ko ci daara ji. Mhm. Eh, jox ko sëriñ bi daal di toog. Mhm. seen tool yu ndaw yooyu ñu daan béyal seen bopp di ci amas lëf mënatuñ ko bay ndax buñ ko béyee sëriñ bi ni leen indi leen. Mhm. kon nag dangay ngay daal di gis ni kon sëriñ si léegi am na wuute. ci sëriñ su njëkk sa ak su léegi si. su léegi si nag boo ko seetloo ñu ci bari ay jeunes lañ. yoo xam ne dañoo ñëw donnu seen bàyya waaye nanguwuñu doon système ba seen bàyyee doon doxalee. mais profil maître coranique nan la war a nekk. waaw mais profil maître coranique xam nga. kam ma war a jóg rek jàngale waaw. Eh, ah, xam nga du noonu. dañuy pour waaw man dem naa voyagé naa dans la <laughs> sous-région. ma gis ñu am organisation bu rafet. Mhm. ci yenn pays yi nga xam ne ñoom lañu seqal. Mhm. Euh, Afrique. Euh, boo bëggee ubbi jàkka. wala mhm. nga ubbi daara. waaw da ngay déposer dossier. dossier bi buñ ko étudier. gis ni yaa ngi dend ak daara. wala yaa ngi dend ak jàkka. dañ koy daal di rejeter. ni la seetal feneen. Mhm. parce que fee nga nekk kat daaraa nga fa nit ñi mën nañ fa yóbbu seen i doom. Mhm. fee nga nekk kat jàkkaa nga fa nit ñi mën nañu faa dem di fa jullee. Mhm. demal nga seeti feneen. loolu la ñu def ba seen diine ja law un peu partout. Mhm. foo dem rek ñi ngi ko occupé. Mhm. malheureusement ñun Sénégal loolu amu fi. li fi am mooy damay ubbi jàkk léegi ci koñ bi keneen ñëw ci sama wet ubbi benn. man maa ngi fàttaliku eh, ñaari jàkk yoo xam ne bu ñu daan jàngi. Mhm. Eh, franco arabe. dañ ko daan romb face delorme eh, ñaari jàkk yi da ngay taxaw ci. bii di laal bii sa ak sa càmmoñ di mm. laal bi ak sa ndeyjoor tabaarakallahu mm, bu ko defee bu julli jotee ñaari ilimaan yo mm. kenn ku ci nekk yaa ngay won sa borom ni ko maa la gën a neex baat <laughs> xam nga yooyu ay musiba la yoo xam ne mm-hmm. mm-hmm. nañu fexe ba génne ko ci réew mi mm-hmm. eh, ñaareel ba ñii ñëw di ubbi ay daara dama bëgg ñu xam rek benn affaire laa leen di wax man dama am lu ma metti li ma metti mooy bu ñu ma présenté xale bi jàngi école mu set wecc yore cartable dugal ci ay téeréem. Mhm. waaw eh, jël guuteem dugal ci tabaarakallaahu mhm. am ay heure di wàcc di ñibbi. ñu tegal ma ci wetam ki ñi mooy elewu alxuraan bi. nañ ko nangu. Mhm. nga séen ko ak baqata ya ak tànk yu xar yi. cilimaay bi ak yére yu xottiku yi ak insécurité bi muy dund ci mbedd mi. daf may metti. parce que la xale école ba am tey daara jee ko moomoon. waaye nag comme ñun exploité wuñ ko. Mhm. tubaab bi moom daal di koy jël daal di koy exploité. Mhm. ñu tuddee ko écolier. kee ñu tuddee ko ndongal daara. bu ko defee kon. Mhm. Euh, gis nga daara. su fekkee ni xale bi euh, la suñu sëriñ ba waxoon. dañoo amoon benn sëriñ boo xam ni. Euh, ci Tiwaawan Cheikh Mouhamed Fall yal na yàlla yokk leeram. dafa sende woon daara ji en plusieurs parties. ñii mu tudde leen. waa kër sëriñ bi. Mhm. ñii mu tuddee leen les mbii di mbaada. Mhm. <laughs> selon ces termes. waaw les mbii di mbaada nee na mooy ñi nga xam ni àdduna du yàgg ba ñu nekk kilimaan. Mhm. àdduna du yàgg ba ñu nekkub sëriñ wala conférencier. dañu ñëw rek pour jàng lu ñu mën a liire alquran. ak lu ñu mën a jullee. loola soo àggaan seen wàcc nga. wàcce na la ndax foofu dana fexe ba nga mokkal yaasin bi ci suuf mhm. dana fexe ba defar sa làmmiñ ba mu rafet sama mhm. xaarijal xuruf mhm. soo àggee foofu nag mun la wàcc nga waa kër sëñ bi nag moo doon suñu maas gi ñun la tuddee woon waa kër sëñ bi dañuy ndulli di ñu dugal ci ay saako <laughs> di ñu xaw a rey parce que nee na ëllëg waaw dañ leen di laaj masque ay responsabilité ça c'est ça c'est important de gis nga la ñu sëriñ waxoon lépp gis naa ko danaan wax ni lee mbii di mbaada ëllëg yéen a ngi di fekk fekk ci hôpitaux yi banque yi administration et <laughs> waaye nag foo leen fekk daañu mën a liir alquran ba mhm. mën a demal seen bopp daañu mokkal suuf yaasin ba suuf mhm. mu ni nag ñi nga xam ne wooy waa kër sëñ bi ëllëg mhm. foo leen mën a fekk ca gàmmu ga ca conférence ba euh, ca mbiri diine ya nam ko waxee woon noonu la amee très bien <laughs> am na solo kon euh, di fàttali tey euh, ñu sanko beneen ponk bu am solo ndax ti dégg nga léegi jëw liñ yor wàllu wér-gu-yaram te yéen daanaka da ngeen am benn maanaam lëkkaloog ñoom gis nañ ni eh, mbas wi eh, fii ci Sénégal nu mu dooree woon évoluer dem benn moment bu mu sax li nga xam ne moo di courbe bi fléchir wàccaat bañ naan sax jeex nam jeexut léegi yéen na ngeen ko jàngatee fu ne nii ñoo ngi waxaat peut-être ñoo ngi dugg ci ñaareelu vague waaw na ngeen jàngatee situation Covid bi ak ban ngeen ci joué yéen ñi imaam religieux yi. fii Covid bi àgg tey dafa am ay jàngale yu bari yu mi ngi jàngale ni ña doon weddi naan amul. Mm-hmm. ba tax ñu teel a def relâchement. Mm-hmm. Covid baa ngi agsiwaat. ñuy gis résultat yi. Mm-hmm. Euh, ña nga xam ni itam dañoo fippi woon démb. ni damay ubbi sama jàkka damay ubbi sama juma. tey jii gis nañ ni cas communautaire yi mi ngi gën di yokk. cas communautaire xamuloo fu mu jógee mhm. mais mën na jóge kilo ki la ko wàll nekk ca jàkka ja kilo ko wàll nekk ca jumaa ja mhm. wala mu nekk ca daara ja donc première jàngat bi moo di nii ñun ñëpp gis nañ ni kon covid bi am na mhm. léegi weddi ko mënatu fi am bayoon nañ ci nag suñu laaj waaw ñun CRSD cadre des religieux pour la santé et le développement ci naka def nañ beaucoup d'émissions de sensibilisation à travers le Sénégal mmh. parce que suñu financement. Mhm. ñi ngi ko accès woon ci li ñuy woowee Tanzimul deux mille usra l'organisation euh, de de de naissance. Mhm. ou planification familiale. mais naka la Covid bi dugg si rek. Mhm. ñu daal di changer de stratégie. daal di ñaan suñuy bailleurs. ñu may ñu euh, lañ ñu joxoon ci financement pour loolu. ñu walbatiku def ko ci Covid bi. sous forme nag. de sensibilisation. ay mhm. émissions à la radio. Mhm. sous forme de de de de de de comment dirais-je de séminaire. Mhm. à travers le Sénégal. pour expliquer. Covid bi danger bi mu am ak euh, nañ lañ ci war a taxawee. Mhm. ak euh, am gi mu daan am ci jamonoy lislaam ak taxawaay ba ci yonatu bi daan taxaw. loolu liggéey na mhm. lu baree baree baree baree bari. Mhm. ci biir askan wi. tabaarakallaahu kon euh, tabaarakallaahu bu ñu gisee tey jii nag. mbir mi di yokk di gën di yokk. liñ ci jàngat mooy lima ma la wax rek. mooy mi ngi dëggal ni ñetteeloo Euh, def relâchement bàyyandiku. sànni masque yi. Mhm. commencé di dajaloowaat oto yi. Mhm. ñuy tàncaloo dégg nga euh, tabaarakallahu surchargement yi nga xam ne mooy am ci oto yi. Mhm. ñu dillu siwaat ko. gis nañ ni loolu ba léegi. moo indiwaat deuxième vague bi. moo ko indiwaat. tabaarakallaahu bu ko defee nag kon. Mhm. li gën a war ci ñu taxawee ko. Mhm. mooy ñu fexe ba yokk sensibilisation yi. xam naa ni ñun am nañ ci benn projet boo xam ne ñu ngi ciy waxtaan. parce que suñu projet jeexoon na. Mhm. ba état bi ne ku ne na demal boppam. waaw bàyyi ñun ñëpp. waaye nag dellusiwaat nañ di am ay réunion. di seet. naka la ñu mën a def encore ati une mhm. fois mhm. parce que du ñu noppaliku ñun CLSD mhm. ba mën a dimbale askan bi accompagner leen ci li nga xam ne mais mais actuellement ni yéen euh, su si lu jëm si seen wàllu pàcc euh, bi ngeen war a liggéey est-ce que maanaam di wax ak seeni i ñooñ mu di imaam yi ci organisation jàkk yi parce que lieu de rassemblement la même bu ñu tëjut sax mais ñu mën a organiser ñi nga xam ne ñoo fay julli jee ndaxte léeg-léeg da dem si jàkk nit yorul masque bëgg dugg foofu coow li sax bëri na ci biir jàkk yi foofu est-ce que tamit gën a waxtaan ak askan bi ñuy respecter tamit mesures yooyu ci biir jàkk yi euh, doon loo xam ni ponk bu am solo la. xam nga foofu itam dinaa ja maa ngi nuyu sama imaamu koñ yi <laughs> ñoom waaw <laughs> ñoom imaam Balde waaw waaw foofu itam dinaa ci jàppale imaam yi ci benn. Euh, mhm. pàcc. Mhm. moo di ni imaam yi ak ka ñuy jiite ñoo yem ci Covid bi. Mm. imam bi mën na def ay sensibilisation waaye ka muy jiite itam war na xam ni covid bi soxal na ko moom it mhm. même bu imam bi deful sensibilisation wala respecté wul distanciation yi ci jàkk yi mhm. wala respecté wul euh, ni ñuy takkee masque yi mhm. yow mi muy jiite nga respecté ko bi maanaam doo bàyyindiku sa bopp rek ci kaw imam bi imam bi day wax yow itam ngay jëfee soo ñëwee ci jàkk gisoo kenn takk masque respecté wul distanciation mais bul dugg ca jàkka ja mhm. taxawal ca boori jàkka ja nga julli boo jullee am nga julli ah ah, ah très parce que wóor na la fii ah boo fa duggee mën nga gaañ sa bopp mhm. te lislaam nee na wala tulqu bi aydikum ila tahlukati nee na bul gis lu lay gaañ nga dutte sa baaraam wóolu demal fa nga wóoloo nga julli léeg-léeg jàkka fees ba nit ñi taxaw ci bunt bi di julli àndandoog imam bi mhm. kon nag bu la wóoree ni fii kenn respecté wu fi mhm. euh, li nga xam ni mooy mesures yi mhm. yow nga respecté ko yow sa bopp kon nag affaire bi du mbiru imaam yi rek waaye mbiru également maamoom yi maanaam ñii jiite ñoom itam ci la ñu bokk mais justement bëggoon naa la laaj ndax ti tamit euh, euh, ne seen kuréel gi kër foyer religieux bu nekk représenté nañu leen mais rek yéen imaam yeeg yéen ñi ngànk diine gi da ngeen di bëri di woote ndaje te léeg-léeg est-ce que ndaje ngeen di woote tamit di ngeen ci gën a ñaax nit ñi moo di euh, ñu gën a taxaw tamit euh, ci maanaam mesure barrières yi parce que tamit ndaje yi euh, léeg-léeg jafe-jafe maanaam mbir mi mën na fa tukkee. xam nga xam nga ba léegi Tiwaawan ñu nga tëj seeni juma ak seeni jàkka. julli wuñ it wuñu xam nga loolu yëpp Covid bi moo ko waral. de bu Covid bi amul woon duñu ko def soo demee ca Kaolack noonu. Mm-hmm. lew na kaneen gàmmuwuñu ren. parce que loolu lañ doon sàmm ak askan wi. Mhm. du dëgg. Mhm. Euh, dafa am loo xam ni nit ñi war nañ ci bàyyi seen xel gis nga diina lislaam diina jàppandal la diina yombal la. Mhm. li taxoon suñu borom wàcce ko. moom diina lislaam gisoon na ni diina yi ko fi jiitu. parce que diina ya bare woon na. waaw du yi ko fi jiitu. dañu jafeñ na loon mbir mi ba nga xam ni metti na. ñu daal di indi diine l'islam pour mu libéraliser. pour mu yombal. moo tax yont bi daan Bachiru. Mm. dégg nga na ngeen di bégal nit ñi. Mm. ci diine ji waaye wala tu nafiru mm. bu leen di dawloo diina ji. yassiru léeg-léeg mu ni na ngeen di yombalal nit ñi wala tu assiru te bu leen jafeel diine l'islam dafa nekk diina ji yomb. tabaarakallahu bu ko defee am ay alternative Mm-hmm. su bii jàppandiwul rek. am na beneen bu mu la tërëndal boo xam ne mën naa jàppandi. Mm-hmm. du dëgg loolu nag dafa laaj sensibilisation waaye dafa am ñoo xam ne déggee wuñ ko noonu nañu waxante. dëgg mais d' may may ma tuuti ma wax la. Mm-hmm. may ma tuuti ma wax la parce que ilimaani démb yi ak yu bari ci xew tey. bokkuñu parce yi xew tey ñu ci bari tànnuñu leen ñoo tànn seen bopp. sama baay fi nekkoon yore jàkka jeeg jumaa ji. sama baay génn àdduna maa koy donn te léeg-léeg formation ba dëgg. Euh, euh, ma jox la benn exemple euh, nga dugg ci avion. ñu jékki-jékki ñu def benn escale ñu ne avion bi dafa panne. ñu war a départ ñun nañ jëli doomi pilote bi soo ko dégg. <laughs> doomi pilote bi du mos a ñëw. ka jàngi pilotage. Mhm. kooku la ñuy jëli moom la ñuy indi. loolu nag dafa bari ci suñu réew mi tey. Mhm. généraliser wu ma waxuma mhm. ñëpp la de. waaye daf cee bare bare bare. bari itam ku ñëw rek samp jàkka. damay samp jàkka. daal di samp jàkka commencé woote ilimaan mhm. tabaarakallaa léeg-léeg nga gis koo xam ne sax xam-xamam jëmul màccul jëm ci wàllu diine ci wàllu pajum euh, tradition ci la ci la jëm waaye boole na boppam ca kilifa diine ya mhm. defar jàkkaam moom itam mhm. wut ustaas bu ko fay bu ko fay bu ko fay jiiteel mais très yëpp c'est des yoo xam ne war nañ ko régler au Sénégal mais justement man dama bëgg euh, ñi nga xam ne ñoo di euh, comme chaque famille est représenté est-ce que sensibilisation bi jiituwul tamit ngeen dem wax xalif bu nekk ci kër ga jërëjëf ci loolu. Mhm. Euh, maa ngi lay xamal ni CRSD. CRSD mhm. defoon nañ fi benn tournée. Mhm. chez les chefs religieux. amul benn chef religieux bu ñu demul waxtaan ak moom. mu rafetlu ko jël ndawam boole ca. Ah. sànq maa ngi lay limal. Euh, mais maa ngi ciy dolli ndeysaan beneen imam El Hadj Ba. nekk dans le sud. tabaarakallahu di kilifa diine gu mag moom itam teewal fa lépp lu nga xam ne dafa aju ci wàllu euh, Casamance. Mm-hmm. Euh, maa ngi ci euh, limitam El Hadji Moustapha Wele. Mm-hmm. tabaarakallahu moom itam dégg nga teewal fii moom itam kilifa diine yi nga xam ne ñoo féete wàllu Louga. Mm-hmm. bu ko defee pour won la rek ni la CRSD. daan na def tournée di seeti chef religieux yi. te loolu ay preuve à l'appui. parce que yooyu yëpp lu ñu filmer la lu ñu foto boo ñu ko laajoon tey jii ñu indil la ko. Mhm. suñu entretien ak kilifa diine gu nekk. nga daal di koy la ngeen fa wax nga daal di koy la ngeen waxtaanee. <laughs> waaw la ñu waxtaanee bokk na ca. <laughs> won ko ni ko. Euh, dañu bëgg a nekk seen i ndaw. nekk seen benn loxo ak seen i tànk. Mhm. Euh, di leen liggéeyal ci biir askan wi. Mhm. keroog ñëpp ko rafetlu. koo wax rek mu ni. ñu ci bari kii ne la gis nga lii bëggoon naa ko waaye tey jii mënuma ko ndax mag laa. yéen yéen a ma gën a féete ndaw kon nag bàyyee naa leen loolu waaye jël naa sama doom ji jël naa sama muqaddam bi mm-hmm. wala jël naa sama taalibe bi dugal ko ci biir mu toogal ma fa mm-hmm. looloo waral CRSD ñu tudde ko cadre des religieux mm-hmm. euh, muy kuréel goo xam ne dafa lëkkale mbooleem euh, kilifa diine yi bu ko defee nag kon defoon nañ sensibilisation seeti sëriñ si waxtaan ak ñoom di euh, jël seeni xalaat nag di ko rafetlu àgg nañ ci ba suñu demee ci euh, kilifa diine daan nañ ko faral di laaj lan la bind mhm. lan la bind ci benn pàcc mhm. ci wàllu luy jëmale kanam réew mi ak di ko développé mhm. da nga daan yëkkati sa écrit yooyu le waaw daal di ñu koy jox ñu ñu jéem ko exploité maa ngi fàttaliku sëriñ Abdoul Aziz Al Amin bi ñu àggee ci moom laaj ko lu mu bind euh, daf ni moom bind na ci wàllu planification familiale ah wallaay euh, la mu bind yëpp ndeysaan mu yëkkati ko jox ñu ko tabaarakallaahu bu ko defee kon ñun toujours dañuy gis sëriñ si dañ daan bind ba pare mhm. duñ ko mën a exploité def ko sous forme de xasida def ko sous forme d'écrit mhm. texte bàyyi ko seeni kër mhm. mais bi CRSD ñëwee moo ko jël nag di ko exploité moo tax CRSD euh, bu waxee ba bàyyi rek toujours dana cité ab sëriñ bu wax ci wàllu googu wala bu wax ci wàllu gële te loolu dafa am solo absolument voilà loolu nag moo gaawal ñu mm-hmm. nekk ONG parce que mm-hmm. boo seetee euh, période bu gàtt bi ñu nekkee association ak fi ñu fi jógee dem dooni ONG mm-hmm. dañoo battre la record au Sénégal très bien <laughs> voilà <laughs> jërëjëf euh, ñu dégtal yi daal di ko bi émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñépp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yi gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bii ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jonn ngir sellal suñuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS office national de la l'assainissement du Sénégal ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam. jërë ngeen jëf euh, kon nag euh, ci suñu sponsor yooyu di ñu gunge seen émission loo ci xam di ONAS ak pharmacie nationale d' ci gunge bu ñu leen di gunge euh, ci émission bi xam naa dinañ ubbi ligne bi ci 88 628 98 98 balaa ñoo dugg ci beneen tomb bu jëm ci wàllu planification familiale parce que tamit loolu bokk na ci loo xam ni daanaka coow judd na ci lu bëree bëri ci gis-gis yi tamit wóoroo lu bëri waaye nag balaa boobu bëggoon naa la laaj imam ci wàllu maanaam taxawaay Covid bi foog ñu taxaw ci tuuti tamit ndaxte foofu est di ngeen naal dara lu bees naam sax bu nekkoon nekkoon ngeen ci ak lii nu mu jógee nii pour rek gën a sensibiliser ñooñi. boo amee sa noonu. Mhm. di xeex moom. Mhm. ñu dem bañ ba mu ni wàcce na ay ngànnaayam. Mhm. yow boo wàccee say ngànnaay it warloo selenglu. Ah. da ngaa war a continuer dem wutiwaat ngànnaay gën a takku. ndax xamuloo noon bi bu delsee nu muy delsee loolu moo ñu dal ci Covid bi. Eh, am nañ suñu ngànnaay di ko xeex. di bëreeg moom mu jékki-jékki daal di wàcc. wàcc ay ngànnaayam mhm. ñu ni daanaka jeex na fi mhm. ñu ni itam ñu téye suñu loxo gannaaw nag léegi nee na waat pël indi ay ngànnaay yu bees mhm. ñun itam daw nañu wuti suñuy ngànnaay yu bees ñi ngay waxtaan ak suñuy bailleur ñu ngay tëral ay stratégie ñi ngay def suñuy réunion pour wàññi ko nag mën a fas yéene jàkkaarloo ak moom bi yoon nag ci wàllu gu bari ci wàllu sensibilisation ci wàllu bu fekkee ni def na fi lam fi defoon parce que ku nekk tey xam na ni. conséquence Covid euh, euh, conséquence su confinement bi. indi na lu bari. waaw ñii mënatuñ fay seen i facture mhm. commerçant yi daanu nañ euh, yenn commerce yi tëj nañ. Mhm. et cetera et cetera. Mhm. xat bara bokk na ci li ko waral. mbëkk mi li ko indi tey loolu ci la bokk. parce que Sénégal dafa dund lu méttee méttee métti. bu ko defee nag bu ñu jógee ci loolu xam nga. Euh, xëy na loolu beneen tomb la waaye boo jógee ci Covid ba kenn amatul dërëm mhm. ah wax dëgg yàlla sa tool bi nga xam ne moom nga daan bay mhm. léeg-léeg nga for ci loo lekk mhm. ñu jël tool ba dagg ko jox ko ay nit bàyyi la yow nga ne xaaral ma daw ci géej gi daw seppi ji bokk lu ma mën a seeñu nga dem ñun lay géej gi moom itam def nañ ko ay licence jox nañ ko keneen mais nooy def da nga naan maa ngay daw Espagne wuti ko. maa ngay dem France wuti ko. Mhm. lu lu nekk nag dala koy jaral. nga dugg ci gaal gi nag. ba des ji. Mhm. Mhm. voilà. très bien euh, kon nag euh, foofu yéen a ngi ciy taxawaay euh, yéen a ngi ciy maanaam naan lu bees pour rek li jëm ci wàllu xeex boobee tamit ngeen gën ci dugal seen loxo ndaxte nag gis nañ ni cas yi commencé na tar loolu ci fi nga xam ni moo jëm ci situation xam naa nag dinañ jokkoog ci kanam tuuti rek ki nga xam ni moo di sëñ Massamba Sall mi nga xam ni nag moo nekk ca ministère de la santé waaye balaa boobu bëggoon naa ñu waxtaan li jëm ci wàllu ne nga euh, seen liggéey bokk na ci seen plan d'action yi ci planification familiale gis nañ ni daanaka fu mu ne nii euh, lu ne gisee nañ ko indi nañ fi nii dañuy sorel njur. Mhm. ñu ne nii déedéet dañuy pousser nit ñi pour ñuy def naka su dul noonu. Mhm. waaw danañ def nii dañuy gëf nii dañuy def ne dañuy def naka mais yéen ñi nga xam ne ñoo di CSD na ngeen taxawoo ba lëkkaloog ministère de la santé ak la ngeen ci euh, la ngeen ci seen ban gis-gis ngeen ci am d'abord ci planification familiale la la ci diine wax. Euh, planification familiale boo gisee ñu ñun itam ñu dugg ci. Mm-hmm. pour àtte ñaari kuréel rek la. Ah. pour àtte ñaari kuréel yu xeex. Mm-hmm. kuréel gu njëkk gi da ko kontar. waaw te fa mu sukkandiku nee na ci alquran la. Mm-hmm. du dëgg. waaw fa mu sukkandiku mooy ca aaya ja jay wax ni dégg nga bu leen jur ay doom di ko rey. du dëgg. ñooñu foofu lañ sukkandiku. ci lu bare bare. boo demee ci hadis ña nga sukkandiku fa yonent bi di waxee ni na bëgg naa ngeen di jur nga ngir ngeen bari ndax bu ëllëgee mm-hmm. yéen laa yéen laa di tiitaroo mm-hmm. nga dem ci ñu nga xam ni ñoom dañu ko euh, dañu sukkandiku ci euh, ni planification war na mën na nekk mm-hmm. ñu indi ñoom itam euh, ci aaye joo xam ni Euh, alquranul karim mi ngay wax ni lu mu dee dee euh, na nga mën a téye sa bopp ba mën a nàmpal sa doom lu mu néew néew ñaari at euh, sukkandiku ci beneen hadis boo xam ni itam wax nañ ni saxaaba yi daañ nañ def li ñuy wax koy interrompu mhm. te mooy ànd ak sa jabar soo demee ba am looy yëg mu war a génn ci yow nga jóg yëlëb ko feneen mhm. ñu ne dañ ko daan def ci jamono yonent bi mu yëg ko xam ko dégg ko te àdduwu ca di leen ko aaye mhm. voilà mhm. xam nga kon ñaari kuréel yooyu kenn ku ci nekk mhm. am nga position boo taxawee mhm. waaye euh, ñun bi ñu ñëwee bind nag benn argumentaire tuddee ko argumentaire islamique axé sur la planification familiale mooy espacement de naissance espacement de naissance ni ñu ko war a espacement de naissance ni ñu ko war a defee dooma ni El Hadji Moustapha Guèye mi ñëpp xam ci biir Sénégal dana bind yëfu caaxaan xanaa man mën nañ ma jëlale waaye man ak moom ñoo def les recherche bind téere boobu tudde ko argumentaire islamique mhm. te lu ñu jiitu loolu mhm. fekkoon nax le professeur Abdoul Aziz Kébé mhm. dooma ni moom itam day bindu lu ko neex alim la moom itam bindoon na ci bàyyi fi euh, euh, bi ñu demee itam di gëstu gis nañu sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amin moom itam bindoon na ci yëkkati ay brouillon jox ñu ko du dëgg ñu ñëw bi ñu ñëwee dañuy wax ni euh, lu war a mën a nekk la ndax ñi koy contre tey. waaw kenn ku ci nekk boo demee ni ko bindal ma teere nef. Mhm. mu bindal la ko. amul benn sëriñ ci biir Sénégal. Mhm. boo xam ne taalibeem du ni ko euh, sëñ bi damay nefkat ñaanal ma mu ñaanal ko. <laughs> sëñ bi damay nef bindal ma téere. mu bindal ko téere jox ko ay xànc. Mhm. mais man ca daara ju nekkoon sëriñ ba soo ko waxaan mbiru nef. xam nga nu muy def. Mm. Mm. am na aaya boppam bu mu daan bind walbati ko. Ah. su paree yónni la yow taalibe bi ca tool ya. nga dem gënd nga nga xam ni moom la ñuy bojjee nga seet ba ci faq ca taat wa fa ngay leellee galan bi indi ko mhm. jox ko ko mu lëmës ci téere bi ku mu ko a takkal mhm. di nga bàyyi nef est-ce que te kooka kilifa diine la woon mhm. donc kon forme bi moo changé nag forme bu changé itam mën nañ cee ànd parce euh, sëriñ bi téere la doon joxe ak xànc sëriñ bi ay ñaan la yore woon tubaab bi ñëw indil ko ay doom wala mu indil ko ay piqûre mhm. donc forme bi moo changé mhm. beneen exemple li ñuy wax téegu te mooy xaraf mais ku nekk xam na la ca nekkoon euh, tabaarakallah boo ci daan dugg euh, say bokk dañ lay ñaanal mhm. di lay takkal ay téere wutal la ab selbe nga dem ba ca àll ba du dëgg nañ ko daan defee ku nekk xam na ko takk ci euh, sa awra tiire ko teg ci gën tàngal jaas yi dóor mu ne tàppit mm-hmm. nga jël xobi tabanaane yi def ca mu xalangu <laughs> tubaab bi ñëw indil ko beneen méthode bu bees ni ko man bi nga juddoo ci hôpital bi mm-hmm. falaa la koy defale te doo ko yëg booy ñibbi génn hôpital bi da ngay yóbbaale ak sa xaraf waaye pourtant ñu doon téegu ba léegi bàyyi nañ téegu ña nga dem ci hôpital ba parce que affaire yi ñoo changé gis nga l'islam mais mais justement bëggoon naa laaj foofu ci espacement des naissances bi nga wax noonu euh, ci fànn woowu ndaxte gis nañ ni euh, léeg-léeg euh, pour espacer mais dañ na am na ñoo xam ne peut-être dañ si dëxëñ wala sax nit ñi bu ñu leen wanee yoon wi day tax ñu def naka su dul noonu utiliser ko ci beneen fànn. jëf garab goo mës a gis ci àdduna. Mhm. am na ay effets secondaires. Mhm. même médicament yi la tubaab biy jox nga ciy faj say tension say diabète say cardiaque ah. am na ay effet secondaires yoo xam ne boo demee ca notice ba ñu wax la ko. bi nga xamee ni am na ñu jóg di doxal wàllu planification di soril ak njur. Mhm. mais am na ñu ci potox lu yow itam. ña ca potox lu bokkuñu ca parce que l'islam ba muy wax. Mhm. espacement de naissance da ko wax ci diggante ñaari way dencante. ci biir charia. Ah. koo xam ni euh, sëyaguloo muy góor muy jigéen bokkaloo ci. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ko ci benn xadis mhm. boo xam ne ma nga tàmbalee man istataa minkumul baata falyatazawaj mhm. koo xam ne am nga les moyens mën a sëy demal nga sëy waaye bu fekkee ni amaguloo les moyens mhm. mais na nga def abstinence téye sa bopp te wax nañu sax fi ñuy jaar ba mën a def abstinence mu ne nangeen ngeen di taqoo koor koor dafay couper appétit sexuel yu nit loolu moo tax boo wooree tabaarakallaahu daanaka du yëg loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nag léegi tey lislaam waxul ak xale yu jigéen yi séyegul mhm. lislaam waxul ak góor ñi nga xam ne amaguñu jabar boolewu leen ci mhm. ñoom ñu ñëw boole ci seen bopp potox lu ci biir mais kooku du responsabilité wu ki nga xam ni mooy promovoir planification familiale du moom moo ko fi indi mhm. exemple bi ma la ciy jox Dulian lan moo ko tax a jóg sëñ Thiam. waaw Julien li ko tax a jóg mooy. mélange ko ak peinture. Mhm. di ko peinturer sa kër. waaye am na ñu ci potoxlu. jënd Julien ba dugal ci morceau. Mhm. wañ ko ba mu ba mu muus. Mhm. nga di ko def say bakkan ah di mandi di sàcc lu jàmbur yi di toj bitigu jàmbur yi dama lay laaj responsabilité ba kan la ki defar bili Julien pour que ñu def ko ci peinture moo yore responsabilité boobu la wala ki ci potoxlu. très bien ñu jël euh, su nekkee am na ku nekk si ligne bi salaamaaleykum. salaam. ku El Hadj Moussa Thiam. naam. Ibrahima Diop. bisimilah sëñ Diop. Moussa. Mhm. naam. dégguñu la bu baax de. man ci bànn yi ci laa bëgg a wax. ayca bisimilah. waaye léegi ñoom. si mhm. am doom ci am dëkk ñoom xoolal ñu teg ñoom. Mhm. ah. léegi seen ñi am doom te sëyuñu rek. ñu arrêté nañu moo gën. ki am doom ki am soxna koy am ñaar ba ñu ko arrêté mhm. soo amee dañu ba doom doom lu ñu dundal mhm. ki amul jabar te am doom la ñu koy wax mu mhm. ah imaam jërëjëf xam ngeen di ne balaa kenn am doom na am jëkkër ba pare loolu la waxoon sallallahu alayhi wa sallam eh, wallaay wax naa ko léegi nag loolu yow itam ah. xanaa dégguloo ma jeex na wax naa la ni la ñi am doom am ñu jëkkër te am ñu jabar nañu wax ak ñooñu ñu arrêté ñooñu moo gën tey ñooña bokkuñu ci ñoo ca potoxlul seen bopp ah? mm-hmm. ma ni ñooñu ñoo ca potoxlul seen bopp l'islam boolewu leen ci mm-hmm. lislaam ba muy wax planification familiale ñaari way dencante yi ci wàllu sëy mhm. ñoo ñoo ko tax di wax mhm. ki nga xam nag da ci profité euh, potoxlu ca bay ami doom te amul jëkkër wala muy ami doom te amul jabar kooku responsabilité moo ko gàddu digganteem ak ak borom waaye nag il appartient aux imams ñu ah. fexe ba sensibiliser ñooñu ba pratique yooyu ñu war koo bàyyi d'accord naa ak yow foofu jërëjëf jërëjëf barakallahu fiik jërëjëf ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekk am na ku nekk ci bi ñu daal di koy dalal su seen rajo yéen ngi seen biir émission lu ci xam euh, su euh, ngi doon wax ci wàllu espacement des naissances bi ni ci nga xam nag moo di taxawaay nee nga nag euh, ñu bëri maanaam ay ulema yu bëri tamit wax nañ ci seen i gis-gis bind nañ ci teg mais ñooñu est-ce que loolee nga xam ne bind nañ ko ak li ngeen jàpp ni moom am na waroon na wala tamit gisee daje na. boo demee ci boo delloo. defe naa ne 1981 lay war a doon. waaw euh, journée de l' espacement de naissance bi fi amoon sur le plan international. Mhm. Euh, ba léegi maa ngi jàpp discours Serigne Abdoul Aziz Sy Al Iman Al Amin mhm. rawati ca la mu ca bindoo nit maa ngi ko yor. Mhm. du dëgg. waaye gis nañ ni eh, tabaarakallaahu euh, gis-gisam. dafa dëppoo ak ñu nit suñu gis-gis. Mhm. ñu jàppale ko ca gis-gis boobu boobule. Mhm. mu bokk ci suñuy plan d'action. Mhm. gis nañ ni nag Cheikh Ahmed Tijani Niass. ca Medina Baye. ca Kaolack. bi ñu waxtaanee moom wanoon nañu am mbindam mu mu bindoon ci planification familiale. tabaarakallaahu. waaye kenn ku ci nekk rek da nga caa dàq ku sëyul. ca say wax. waaw da nga caa dàq ku sëyul ni boolewuma ko ci. tabaarakallaahu loolu nag mooy suñu gis-gis ñun mhm. am maa jëmmi nag ki ci potoxlul boppam def ca mhm. lu ko neex mhm. euh, mais covid bii sax am na ñu ci potoxlu waaw euh, ils se sont enrichis <laughs> sont devenus de milliardaires dëgg la waaw bëri na ci voilà jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM 98.5 yéen a ngi seen bi l'émission lu ci xam te nag euh, ñu ci waxtaanee li jëm ci wàllu euh, lii di taxawaayu CRSD euh, di kuréel bi nga xam ne nag ay religieux ci nekk ngir rek dugal seen loxo li jëm ci wàllu développement boo tax ne nag tey ñu dalal fi imam Ahmed Tahi Kane bi nga xam ne nag moomee mooy président association des imams et oulémas bu Kaolack en même temps nekk imam ratib bu kaw Kaolack nekk tamit kii di responsable culturel ak. scientifique foofee ci euh, CRD bi nga xam nag moo di kuréel boo xam ne daanaka nee na euh, ñi ci euh, am ay membre daanaka foyer religieux yëpp kon nag jotee na leen suñu doon waxaat ci li jëm ci wàllu planification familiale parce que léeg-léeg ñu jot yenn message yoo xam ne dañ ñu koy envoyé ci ñenn ñi nga xam dañu bëgg sampay laaj ñoo ngi laaj tamit ne est-ce que tamit du forme boo xam ni tubaab gi Euh, daf ko jaaree foofu pour ndax li nga xam moo jëm ci wàllu déviance sexuelle yi ñu gën koo mën a taxaw ndaxte ñoom jàpp nañ ni liberté bi lañ gën a jàpp que ni daal li nga xam ne mooy nit ki euh, balaa euh, balaa ma cay egg na am lu mu jëfandikoo pour rek loolee sax ay biir ak yeneen dugg ci fekk dina tax loolu li jëm ci wàllu déviance sexuelle yi mu gën a garaaw loolu est-ce que yéen a taxaw tamit di ci waxtaanee ndax ndaxte nag yaa ngi la wax sujet tabou amul ci seen i waxtaan. sujet tabou amul waxtaan. loolu alxuraan moo njëkk a wax maa faratna fil kitaabi min shay'in hmm. eh, kon euh, sujet tabul amul ci suñuy waxtaan ak hmm. suñuy plan d'action hmm. eh, gis nga soo amee fulla waaw di liggéey sa liggéey doomu aadama jóge ca bitim réew ñëw ni la am dërëm bi ma jàppalee la ko ci liggéey bi yow boo jotee dërëm bi yaa xam na na nga koy liggéeyee ci sa biir liggéey du dëgg même bu fekkoon ni tubaab bi mais du ku la abali bët fu la neex ngay xool wala dundewu leen noonu. Eh, non dunde <laughs> dundewuñ. ah, ah. dundewuñ noonu léegi ne dañoo bëgg programme bi ngeen defalee ñu ko nii. dafa dégg benn waaw dégg naa benn ah, ah. oustaz mu wax loolu muy wax bu am solo. mu ni léeg-léeg da ngay ñëw proposer benn oustaz waxtaan mun la loo bëgg daganal wala xaraamal. <laughs> bu ko defee nga ni ko ah man laa bëgg. nee na moo layal la ca ba mu xaraam soo ne ko daganal mun la mu daganal la ca. layal la ca. ba mu neex waaye dama lay bëgg a wax nii hmm. Euh, ñun dañu am kilifa. Mhm. mooy kilifa diine yi jël seen représentant dugal ko ci biir mbootaay gi. Mhm. ñun dañ leen di bàyyee xel. moo tax sax bu ñu bëggee jëm waxtaan ci benn mbir. Mhm. dañuy leen di consulter njëkk. ñu wax ñu seen i gis-gis. waaw ñu booleeg gis. te la dañuy bokk gis-gis. Euh, tubaab bi nag fu nekk dana fa jaar diine l'islam. Ah, waaw loolu moom moom moom nangu nañ ko. ci wàll gépp nag. du du ci planification familiale rek. ci wàll gépp la nag. Mhm. xëy na moom ba muy def. Uh-huh. moom lële la ca bëgg lu yàqal diine. boo ci sax la lewal li nga xam ne moo di borom ñaari tu ak yooyu yëpp. xam nga voilà justement di ci di ci injecté. injecté du ci dugal nag ay ay milliards. waaw waaye yow mi nga xam ne yaay ger milliards yi. Mhm. yaa war a ragal sa borom. mbaa yéen a ngi vigilant yooyu. Ah, di ko xool bu baax a baax a baax ndaxte gars yi prox ndox bu bu ma la génnee loon. li nga xam ni mooy suñu programme yi ñu war a. Mm-hmm. déroulé. Mm-hmm. Euh, ci at mi ak ci at yi ñëw di nga gis ni bàyyiwun ci dara dara dara. Mm-hmm. ci wàllu euh, homosexualité ci wàllu lesbianisme. loolu yëpp ñun jël nañ ci ay matuwaay taxaw. benn bu nekk nag defar nañ ci argumentaire religieux taxaw. di xaar tubaab bi ba mu ñëw. boo agsee nag ñun ñu ni ko lii la ñu ñuy doxal lañ ko def sur la base de l'islam kon lii la ñu mën lii mënuñu ko loolu lu lu ñu war a bàyyee xel la. dama mhm. bëgg nag nga xam ne. réew moo gis. Mhm. am na ñuy jubal. waaw am na ñoo xam ne jubaluñ. Mhm. kenn mënul nekk nit ko parfait. waaw muy yonent muy muy muy sëriñ ba. muy keneen ku mu mën a doon. ñum te day faral di am ci ñëpp. waaye ñun daal. dama la wax ne ñun day ñëw fekk coow li. waaw ñun CRSD ñu ñëw di àtte. di tranché. tranché bi ñu tranché nag. waaw wax dëgg yàlla. Mm-hmm. lu ñu mës a doxal. Mm-hmm. ba léegi mësuñoo gis ku taxaw nu du nii. très bien euh, ñu jël euh, sëñ Massamba Sall bi nga xam ni daanaka dafa waroon bokk ci waxtaan bi euh, kon nag moomee nga xam ne moo nekk foofee ci ministère. membre du CRSD. waaw membre CRSD la <laughs> ah mais nekk ministère de la santé. sëñ Sall ñu ngi lay nuyu. kii mu ngi leen di fay. waaw euh, sëñ Massamba Sall tey euh, waa CSD lañ dalal ñuy waxtaanee rek li jëm ci wàllu lëkkaloo bi ngeen lëkkaloo ministère de la santé daanaka waa kon mu doon loo xam ni daanaka euh, am na point yu bëri liggéey ngeen ci li jëm ci wàllu gestion Covid bi li jëm tamit ci wàllu planification familiale na ngeen ko jàngatee ak tamit yéen ban position ngeen dégagé ni jàpp ni daal moo gën ak par rapport ak tënku ci li nga xam ni moo di diine ak yeneen ak yeneen yi nga xam ni lëkkaloo bi nan la dikkee ak ministère de la santé ak tamit ci naal la ngeen naal loolee nga xam ne moo di sensibilisation bi gën a euh, yaatu surtout rawatina ci Covid bi. waaw ñu ngi leen di ñu ngi leen di sant ñu leen di sant di leen gërëm. Mm-hmm. di sant euh, suñu sëriñ ñi nga xam ne ñoo nekk ci cadre des religieux pour la santé et développement nga xam ne suñu Saliou Mbacké moom moo ko jiite. Mm-hmm. di ci sant famille religieuse bi ci bokk yëpp. ci turu ministre la santé de l'action sociale. di leen sargal di leen delloo njukkal ndax liggéey bi ñuy def jëmale ko ci yaram yaramu yaay ak doom mm-hmm. ñu ngi koy santi di ko gis mm-hmm. ndaxte bu ñu jàppale wul woon uh-huh. xëy na ñu bëgg argumentaire bi egg fa mm-hmm. ñu tënku tënku ko ci alxuraan tënku ko ci église bi parce que tamit euh, cadre religieux am na église luthérienne dañ ci bokk église bi waa église bi bokk nañ ci ah très bien Euh, ñu tëgg loo xam ni dañ ko tuddee argumentaire des religieux. Mhm. pour la pour la pour pour l' espacement des naissances. Mhm. ko tëggee tamit ñu doxal ko fii ci biir Sénégal. te mhm. man sama bopp ànd naa ak ñoom. ñu dem euh, Mauritanie dem Guinée dem nañu Maroc dem Niger. te bañ fa demee dañuy toog ak ay yu mag. Euh, imaam Tarkiyu Kan ak ñeneen ñi mu àndal ñëpp taxaw joxe argumentaire bi wax loo xam ni yàlla waxu yàlla la waxu yonent bi la. Mhm, euh, su ma jógee ci gërëm boobu di wax ni wax nga dëgg ndax Covid bi dafa dafa dugg Sénégal. Mhm. Covid bi nag euh, lu mbala bu daanu ci ci ci ci àdduna bi yëpp la. Mhm. bi mu fi ñëwee tamit ministre bi jox ñu ndigal ni ñu dañu dem ci centre de santé yi structure de santé yi pour xool. ndax euh, ni ñuy faje yaay yi ak doom yi. ak euh, service planification familiale yëpp ñu ngi dox. Mhm. bi ñu fa demee seetsi ko ñu xamoon ñu gisoon ni xawoon na wàññeeku. waaw bi mu xawee wàññeeku ñu ñëwaat Dakar tëgg benn guide boo xam ni noonu lañu ñu bëgg a doxale ci mbas mi. Mhm. guide boobu nag euh, ay kàngam tamit ñoo ko tëgg euh, bi ñuy def mise en œuvre ñu ànd ci encore ak religieux yi. ñoo mhm. xam ni def nañu ay émission yu bari génn nañu génn yu bari engagement communautaire. ñaax nit ñi wax lu yàlla wax ci mbas. Mhm. biñ ne nañu toog seen kër. daf ko teg ñoom ci sartu alxuraan. Mhm. ndaxte sallallahu alayhi wa daf ko waxoon bu la mbas fekkee fenn toog fa. Mhm. bu la fa fekk bu fa dem. yooyu lépp dafa nekk ay xeet yoo xam ne dañ dañu dimbali. pour ñu respecter mesures barrières yi. beneen bi tamit ñu jàpp ñaax nit ñi. ndax ku feebar da nga war a dem faju ji mhm. koo xam ne am nga besoin ci espacement des naissances da nga war a dem def ko ñu continuer sensibilisation bi ndaxte espacement de naissances euh, nàmpal bu bu ñu waxee ci alxuraan ni nàmpal leen seen doom ñaari at mhm. nàmpal mooy moyen bi njëkk bi jiitu ci espacement des naissances donc daal ànd ànd ànd bi ñu lëkkaloo ak ñoom mhm. ci turu ministre de la santé Mm-hmm. ak ci tout directeur la santé de la mère Amadou mm-hmm. dañ koy gën a saxal gën ko dëggal pour euh, njariñu yaay yi njariñu doom yi mais mais defoon ngeen mise en œuvre première euh, maanaam euh, phase bi est-ce que actuellement ak li nga xam ne moo di deuxième vague bi ñëw ci ñii di ngeen leen utiliser comme des vecteurs ñu mën a gën a tamit liggéey ci fànn ndaxte gis nañu tamit daanaka ñoo ngi annoncer une probable deuxième vague. Euh, suñu suñu mënaguñu wax euh, mënaguñu wax euh, mënaguñu wax deuxième partie. waaw probable. mais gi mais gis nañ ni cas yi ñu ngi commencé yo jugaat. Mm-hmm. ñaan yàlla mu bañ a dem ci ci deuxième vague. Mm-hmm. mais lu mu ci mën ci demee. Mm-hmm. ministère de la santé ci jiitul lu Diouf Sarr nga xam ni ñu ngi koy sargal moom delloo ko sargal bi mu ñu sargal. muy fajkat yi nekk Sénégal bi yëpp. pare nañu pour scénario bu mën ci am ñu taxaw ci taxawaay bi nga xam ne moom lañu président de la république dénk. Mhm. mooy lu mun ci am dañuy nekk au premier plan dañuy génne ay mesures yu yoo xam day méngoo ak li li li li jamono ji di laaj. Mhm. mais daal pare nañu pour loolu lépp mais suñu diggante ak religieux yi moom. Mhm. bu amee Covid ak bu amul Covid. dañuy ànd liggéey. déjà ñun ministère direction de la santé de la mère et de et de l'enfant dañu mm. signé benn convention. waaw maanaam dañu tëgg contrat boo xam ne daf ñu lié ñun ak cadre des religieux. Mm-hmm, mm-hmm. nga xam ne li ñuy def lépp dañ ci ànd ak ñoom. ñuy tëgg dañ ci ànd ak ñoom. Mm-hmm. Euh, ñu ngi duggaat ci benn plan stratégique bu ñuy def boo xam dañ leen di woo. en amont ñu joxe seen xalaat joxe seen xam-xam. ñu tëgg ko ndaxte Sénégal mënoo fee def loo xam ni. nitu diine yi ñu si jàppale wuñ la ci. dëgg la. waaw te loolu ndigalu ndigalu ministre bi la. Mhm. te ndigal moom dafa dañ koy ndigalu ministre moom topp rek. <laughs> waaw mooy mooy mooy mooy moom lañ ci war a def. donc dañ koy ko waxee. Mhm, waaw bi. ak les cadres des ñoom si si si si pàcc sensibilisation bi ñu leen soxla ak des comme ça mais yéen en tant que ministère ak situation bu bees ni ki mel est ce que yéen a ngi pexe yu bees. parce que ni ko ni ko imaam waxee euh, maanaam benn ennemi la boo xam ne daal euh, dafa wàcceek jaaj ay jaajam nax ñu <laughs> ñëwaat ak force. Mm-hmm. waaw léegi est-ce que tamit yéen ngi naan ay pexe yu bees pour nag li nga xam ne moo di riposte bu bu efficace parce que gis nañ ni relance bi euh, ça a été dañ ko teel a observé ba tax ni nag li ñu li ñu dal nii dal ñu. waaw xam nga xam nga xam nga xam nga àdduna bi ci boppam. Mm-hmm. fépp. am na dëkk yu bari yoo xam ni affaire yi dafa jublaat. oui mais ñun Sénégal ministère dafa tëgg ay mesures. yoo xam ni mhm. moo tax ñu ne woon Sénégal moo jël deuxième ci àdduna bi. waaw mesures yooyu nit ñi xaw nañu relâché. Mhm. parce que xam nga nag ñun dañu xaw a dëgër bopp. waaw waaw Sénégal ñun dañu xaw a yàlla moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu natoo loolu xëy na. Mhm. mais dañuy gën a continuer waat sensibilisation bi. président moo ko njëkk wax. Mhm. nee na nañu gën a renforcer. mesure barrière yi nu waxoon sensibilisation. parce que mhm. mesure barrière yi ñu indiqué ñoom ñoo fi nekkoon démb ñoo fi nekk rek. moom kay xanaa nit ñi topp ko. Mhm. pour nit ñi topp ko nag président wax na. fa ñu jàll woon bu fa ñu jàlloon mboyam boobu lañ koy jaarale waat rek. Euh, xaalis yi waxoon nañu dinañu waxaat. religieux yi waxoon nañu dinañ waxaat. fu ñu jaaroon dinañ fa jaaraat. pour daal nit ñi topp. di tegtal yi. Mhm. Euh, pour pour pour pour mbas yi man fee man mën fee jóge. Mhm. waaw. jërëj sëñ Massamba ñu ngi lay gërëm la sant. waaw ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Ah. di gërëmaat euh, imaam gërëmaat euh, sama sëriñ sëriñ Saliou Mbacke bi jiite CRSD. Mhm. di leen sant ci collaboration bi ñu am. lu ñuy tëgg lépp. dañ koy tëgg ak ñoom. Euh, lu mun ci am dañuy ànd ak ñoom liggéey ko. Mhm. pour euh, population sénégalaise bi d'une manière générale. jërëjëf jërëjëf sëñ Massamba Sall. <laughs> ñoo ngi leen di ma sant kon nag euh, kooki sëñ ban commentaire ngay def ci intervention sëñ Massamba. <laughs> voilà maa ngi koy. waaw ñu ñu bëggoon ñu nekkoon ci ligne bi mën nañu dugg léegi si 88 628 98 98 wala 820 98 80 voilà c'est ça waaw maa ngi jégalu bisimilah. maa ngi koy maa ngi koy gërëm bu baax. ci intervention di dëggal itam li nga xam ni wax na ko fi. Mhm. Euh, cadre de religieux pour la santé et le développement. Mhm. CRSD fu ñu mës di déplacé wu. dans la sous-région dañuy ànd ak un représentant du ministère. Mhm. de la santé du Sénégal. Euh, lu ci bari nag euh, Massamba Sall moomu moom lañ daan àndal. on a voyagé un peu partout. dans la sous-région. ni mu ko waxee moom limal na ko boppam. Maroc Mauritanie Niger Guinée et cetera. Mm-hmm. te kat li ci gën a yéeme mooy dëkk yooyu ñu demoon yépp tey jii am nañ seen CRSD. grâce ah oui ah oui grâce au CRSD du Sénégal. est-ce que ñun ñoo leen. Euh, euh, maanaam inspiré inspiré. Mm-hmm. ba ñu créer seeni CRSD. Mm-hmm. ñun ñoo leen jàppale. ba suñuy bailleur di leen financer di leen jàppale ñoom. kon léegi CRSD euh, Sénégal moomatu ko. waaw mais c' est. c' est euh, mondial c' est c' est devenu mondial. waaw universel euh, m'a flatté. ok bu ko defee loolu Massamba wax dëgg la. Mhm. ñun mënuñoo dem ci wàllu santé. te jiitaluñ ministère de la santé. Mhm. moo tax toujours rek dañ koy jiital. Mhm. nu mu bëgg a doxale ci askan wi. ñu seet ndax na muy doxalee dëppoo na ak diine wala déet. Mhm. wala bu dëppoo di ak diine. Mhm. ñu seet ndax askan wi nangu woon nangu nañ diine jooju wala déet. waaw bu ko defee ñu daal di mais léeg-léeg ñu ngi jël jëlay dogal euh, rawatina nag ONG kuréel yu bëri ñoo ngi leen ñoo ngi ciy taxaw di waxtaan ak askan wi wala sax euh, di bëgg wéyal li jëm ci wàllu euh, li nga xam ni moo di avortement. waaw avortement yi kon nag gis nañ ni maanaam li nga xam ne nag dañ yu ñu légaliser waaw. Euh, la moo ci position bi parce que gis nañ ni mbir mi euh, ñoo ngi ko doon ngawti ngawti di ko yëkkati di ko yëkkati boo boo moytu nag ñoom ñoo ngi def ay pression pour que ñu mën ko amal Sénégal est-ce que euh, seen position argumentaire bi ngeen di wax ni si wàllu planification di ngeen ko ci am. xam nga ñun du ñu mës a d'accord. waay ci ni. Mhm. rayal nit. ma même ma jël. jërëjëf ci ligne bi salaamaaleykum maaleykum salaam. Euh, El Hadj Moussa. naam. Diop. Diop na nga def bisimilah. di nuyu di waa Sénégal yëpp. ñu ngi lay fay. Mhm. di nuyu sa invité bi. Imaam Ahmed Taxi Kane. Imaam Ahmed maa ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay delloo ziar jërëjëf. Euh, di kontaan ci boobu lay maa ngi leen di jërëjëf. amoon ay laaj yu ma leen bëggoon a laaj. comme yéen wax ci affaire Covid bi. Mhm. ma leen laaj ci maam euh, est-ce que ñu ngi bàyyi xel ci nouvel ordre mondial. Mhm. parce que euh, am na vaccin yu prévoir. Mhm. mais gis naa fi au niveau de l'Italie am na déjà ñoo nga xamante ni ñu protesté contre ce vaccin. contre ce vaccin. et euh, yeneen pays aussi niveau de la France au niveau de l'Allemagne. bon ñu ngi protesté contre ce vaccin. est-ce que yéen ñu ngi bàyyi xel. bon beneen bi mooy euh, financement yi. comme mu êtes des religieux. est-ce que xam financement yi su ñu jógee. bu ngeen ko xamee est financement yoo xamante ni ñun jullit yi war nañ ko mën a euh, jariñoo. wala ñun ñun jullit dañoo war a organiser à ce que. ñu mën di financer suñuy. projet di man dimbalante ba nga xamante ne mhm. saay saay du mën a jógee fële dañu imposer seen i mbir mhm. très bien jërëjëf waaw ñaari question daal laa laa leen doon jërëjëf am sa ñu xool ñeen su nekk am na ñeen ñu nekk ci li bi ñu dajale su nekkee am na ñeneen ñu bëgg laaj sam seen question wala contribuer bisimilah imam jërëjëf maa ngi koy nuyu di ko ziar hmm. mu posé fii ñaari question yu ama am solo yoo xam ne yàkkamti woon nañ ñu posé ñu question yu ni mel bi ci jëkk mi ngi aju ci wàllu vaccin yi moom wax na réew yi nga xam ne ay pays de développement la yoo xam ne ñi ngi euh, contexte contexté euh, dégg nga euh, li nga xam ni mooy vaccin yi mm-hmm. te bu ñu ko defee rek am na lu ko waral mm-hmm. bu ko defee nag réewum Sénégal mm-hmm. comme ñoom ñoo ñu jiite ñooy jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo yore santé ci wàllu àdduna bi mhm. ñun ñu topp ci seen gannaaw mhm. ñun dañoo jàpp ni mhm. xëy na euh, du ñu sacrifier seen peuple xanaa àdduna du jaralu leen ko euh, ñu am ci ñoom confiance pour que euh, ñoom ñu lijjanti loolu parce que ñun suñu xam-xam àggul jëm ci xam ndax vaccin bi baax na wala baaxul àggul jëm ci xam ndax vaccin bi dana euh, jariñ askan wi war du leen jariñ mm-hmm. àggul jëm ci xam ndax vaccin bi dañ ko def pour tester ko ci biir Afrique wala déet mm-hmm. bu ko defee nag dañuy jox nag suñu njiit yi nga xam ne ñoo yore réew mi mm-hmm. ñoom ñu jiitu topp ñu topp seen gannaaw ñooña war a jóg nag uh-huh. lijjanti mbir moomale bu ko defee nag ñu leen di bàyyee xel nag di leen bàyyee xel parce que bàyyee xel bi mooy ñoom bu ñu demee ba nara nangu loo xam ni gis nañ ni àdduna bi yëpp nanguwuñu ko. Mhm. dama ni la ñëpp waxee dëgg. nga daal di rangé wu. Mhm. Ah, ca la bi. Mhm. Euh, bëgg bu ko defee. la nga xam ne réew mi da koo bëgg a def. te du noona. nga taxaw xeex ko. mais est-ce que yéen seen di ngeen di ngeen sànni seen baat ci ñu ne leen ah moytu leen walla saytu leen lii. waaw. waaw euh, xam nga. parce que il faut ngeen di dégager ay positions. ay positions xam nga dañ ko soxla. xam nga xam nga xam nga eh, li nga xam ni moo moo xew. ñun toujours dañ ciy bàyyi dañ ciy bàyyi xel. waaw mm-hmm. du dëgg. Mm-hmm. dañuy analyser ay situation mm-hmm. di jéem a jël ay positions par rapport. ak li nga xam ni moo. xew ci àdduna bi mhm, dama la wax sànq ne la jox nañu réew mi confiance mu lijjanti mbir vaccin yooyu mhm. mais ñu ngi koy bàyyee xel ñun itam mhm. di déglu lépp lu ci nar a gaañ waa senegal ñun daañ ci taxaw xeex ko salaamaaleykum maaleykum salaam ku baax El Hadj Moussa Thiam naam El waaw fooy wootee di nuyu di leen gërëm jërëjëf jërëjëf sëñ di leen jaar di nuyu imam kan. jërëjëf ñu ngi lay dellu nuyu le ziar. waaw man dama am question yu ma bëggoon laaj rek. ci mhm. wàllu mbas mi. Mhm. allo. waaw ñu ngi lay dégg su fekkee imam mën na ma ci répondre. dafa am ay taxaw seetlu yu ñu def. Mhm. ci wàllu feebar bi ni muy dundee ci Sénégal. ndax imaam yi waruñu jëlaat ay seen ay responsabilité parce que dafa mel na. dafa am ay taxaw seetlu yu ma seetlu mooy ni hmm. ñu ngi dem ci dëj yi hmm. te imaam yi ñooy jiite dëj yi hmm. ñu ngi dem ci ngénte yi te imaam yi ñooy jiite ngénte yi ñu ngi dem ci takk yi te yi ñooy jiite takk yi foofu duñ ñu kenn bul def lii bul def lii bul def lii te bu dee ci jàkka ji da dugg ci jàkka ji ñu ni taxawee ni taxawel ni taxawel ni man ngeen baal ma ci laaj bi est-ce du yab yàlla ndaxte da ngay dem ci takk yi ñëppay dendandoo ñi duñ takk masque ñi duñ takk masque. Mhm. ndax imaam yi aussi mënuñu am benn politique. Mhm. kuy dugg ci jàkka ji. Mhm. ne ñëpp takk masque. suñu jullee ba pare imaam ni jarul joxe loxo ku nekk parce que julli matul cinq minutes. parce que aussi ndax loolu taxul yàlla téye fi feebar ba léegi. ñu bàyyi jàkka yi. boo boo demee ci tànk yi kenn du la wax dara. ñu ne ji ñu yemal fii wala yemal fii. dëgg dëgg la dëgg la. allo. dégg nga ñu ngi lay loolu daal moo doon samay question mu mu firil tuuti sawu su fafakum. la bokk ci la bokk daañu ko ko waaw wala ñoom ci Mbacke si la dama koy tooy rek si lu bu ko defee balaa may dellu ci tontu ñaareel bi ma waroon a tontu. Hmm. ci wàllu financement yi nga xam ni mbokk mi njëkkoon a woote. wax na ko eh, ma ñëw ci El Hadj ci loolu mu wax ci li nga xam ni moom la imaam yi di def mm-hmm. bi maanaam boo leen fekkee ci jàkk ji ña ngay euh, rafetal sàppe ya ña ngay respecter distanciation yi mm-hmm. ña ngay takkaloo nit ñi masque waaye bu ñu génnee euh, euh, pare nañ ca loola mais te xamuñ ni mm-hmm. jàkka ji rassemblement moo fi am pour la prière mais également fa ilimaan bay toxu muy ca dëj ba muy ca ngénte la foofu itam rassemblement la mais est-ce que du imam bi parce que jàkk ji moo fay responsable moo tax responsabilité moo engagé wu moo tax muy def noonu. mais non mais imam bi. responsable wala jéggi na jéggi na jéggi na jàkk ja. jéggi na jàkk ji parce que bu nee imaam mhm. loolu mooy dama xam diine. xam li ci yàlla wax. Mhm. donc bu ngeen dee julli ma ñëw jiite leen. su ngeen dee takk dajale waaw ma ñëw ma ñëw jiite leen su ngeen dee def leneen ma ñëw jiite leen. donc kon imaama gi. Mhm. Euh, dafay génn jàkk ji. topp imam bi ba ca takk ga. takk ga ba ca ngénte la ba ca dëj ba. la muy digle. ca biir jàkka ja ak jumaa ja mhm. loola la war a diglee su demee ci ngénte ak su jëmee ci ab dëj mhm. bu bu ko defee eh, tabaarakallaahu ñu xam ne la muy woote dëgg la ci moom mhm. du dëgg bu ko defee nag loolu nag dafay am nag ay imam yoo xam ni tabaarakallaahu euh, du ñu def prise de conscience par rapport ak loolu ba waral bu ñu demee ci jàkk ja wax li dina wax ci mbas mi suñ ca génnee pare nañ ca léeg sax da nga ciy gis ñoo xam ne duñu takk masque waaye su fekkoon ni imam génne na jàkka ji dem ci ngénte wala mu dem ci dëj mhm. wala mu dem ci feneen mhm. bi muy ñëw mu indaale maskam ku ko jox loxo mu téye loxoom ah dégg nga eh, boo ko jegee mu ni may ma nga àndonee tuuti léegi nga gis waa dëj bi wala waa ngént yi ñëpp commencé di commencé ñoom itam di organiser wu très bien sur le financement euh, financement euh, ci li mu wax sànq mu ni ndax war nañ di seet saytu finance fu muy jógee yooyu lee hmm. fu muy jógee ak ñu koy joxe ñan la ñan la ñan la. Mhm. lenn nag mën naa ci wax. Mhm. xam naa ni ONG euh, bailleur yu bari ñu bari boog. Mhm. Euh, la ñuy joxe dañ koy joxe pour seen intérêt bopp. waaw xam nga intérêt bopp bi lan la. mooy dañ la wax ni boo dee financer ay ONG ci biir àdduna bi. say taxe. waaw ci États-Unis. ah. day wàññeeku wala dañ la koy baal. dëgg la. parce que la ngay jël di ko financer ONG ci bit yi mhm. moo gën a tuuti mhm. fopp soo ko deful li ngay fay ci ay taxes ak i impôt la mhm. ñu koy jël nag di ko génne pour rawale ko am na ci bailleur yu baax bari loolu leen tax a jóg donte nag bu ñëwee dañ naan damay financer pour lii pour laa financement boobu nag bu ñëwee nag ba bailleur bi joxe ko moom mi ko joxe nag il faut que ñu seet li ko tax a jóg waaw parce que en fait am na sànq lu ñu ah, wax lu am solo ci li ñuy wooyee avortement. waaw ñu wax la ni nit du nekk nitu diine wala muy jullit. Mhm. di nangu ci ni ëmb na yàqal ëmb ba. waaw yàqal ëmb ak nu mënti demee. ak nu mënti demee ci wàllu. Mhm. Euh, mais ñoom mhm. nga nekk ci biir sëy bi attendez attendez nga nekk ci biir sëy bi. su ñu demee nag ci wàllu ci wàllu. Euh, jigéen bi day dox ci àll bi. jàpp njàmbaram di jullit. wàcc liggéeyam yore saagam di dem. Mhm. ab sàmba booy bu kenn xamul fu mu jógee. Mhm. fu mu jógee. waaw ñëw njatt ko. Mhm. dugal ko ci roq. def ca moom lu warul. mu jógaale ci ak ëmb. foofa la coow la nekkoon. waaw foofa boo demee nag dans les pays arabes nga xam ni ils sont pas. Euh, nous sommes pas plus musulmans qu'eux mhm. fu mel ni Égypte fu mel ni mhm. Tunisie ñooñu ñëpp mhm. am nañ ci ay taxawaay ñii nii su fekkee ni euh, mën nañoo gis ni ci biir quinze jours aw lor fekk na ko ca aw lor laa wax de waxuma doom ju formé wu de ak i noppam ak i bëtam ñu ni médecin bi bu gisee ni aw lor fekk na ko ca mën nañ ko may liberté ki nga xam ni mooy qaadi bi bu fekkee ni dëkk ba dañuy àtte ci wàllu qaadi mu jël ay responsabilité am ni ko dindi ko. boole koog médecin boo xam ni xam-xamam daa màcc jëm ci wàllu loolu. Mm-hmm. loolu boo demee ci yenn pays arabes yi. Mm-hmm. yëpp ba léegi ñu ngi koy doxal. du dëgg ñu ne nag fii mënuñu ko fee doxal. Mm-hmm. parce que fii boo ko fi doxalee rek tabaarakallaahu ñëpp potoxlu ci. waaw ah ubbi nga di def lu la neex. Hmm. ubbi sa bunt di def lu la neex. Hmm. soo lëggee nga dem ni dañ maa njëkkoon waaw ku ko fekkee woon bañ lay njëkk yooyu yëpp tabaarakallahu hmm. mu nekk ay questions yoo xam ni. religieux yi ñi ngi daje. di ko étudier. di seet ensemble ban taxawaay lañ ca war a mën a taxaw. parce que dañu bëgg a conséquence yi. waaye nag dama lay xamal ni. Mhm. lu mës a am ci àdduna. Mhm. ay saay-saay potoxlu nañ ca. di def naka su dul noona. dëgg la te boolewuñ leen ca. dëgg la voilà. financement yooyu mu doon wax c'est vrai que léeg-léeg tamit <laughs> comme ni nga ko expliqué euh, nit ki tamit am lu mu ci séntu wala tamit lu tax comme ça ñu fàttali rek yenn ñi nga xam ne bëgg nañu wati très rapidement ñu dugg balaa ñu dugal ci beneen ponk lu am solo ci li nga xam ne mooy. waxtaan wu ñu leen indil tey nag euh, jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo di religieux yi ak développement fu ñu see toll euh, daanaka nag gis nañu nag moom si développement bi ci wàllu éducation macha allah marti ñoo ngi ubbi daara ak ñoo ngi def léegi comme ay Ali Imran des trucs comme ñu Oustaz Alioune Sall ak ñeneen ak ñeneen c'est des entreprises ah mais yéen est-ce que euh, ci wàllu woowu tamit yéen a taxaw pour li nga xam ne moo jëm ci wàllu entrepreneuriat ñu gis ni tamit nitu daara yi c'est vrai que am na ci ñoo xam ne macha allah gis nañ leen ay références lañ sëñ boobu ak des trucs comme ça mais tamit ñu gën leen tàggat ci foofu est-ce que yéen di ngeen naal loo xam ni dina leen dimbali suba euh, ak euh, kuréel gi ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi ñu jàng leen entrepreneuriat pour que ñu ñu jógee rek du si xaala rasulaa la ñuy jógee rek mais dañuy ñëw dugg directement ci entreprise entrepreneuriat. gis nga yaa ngi tudd sànq sëñ Mbuub. ak ñeneen ak ñeneen. ci seen mm. taxawaay. ay sëñ jaar ci wàllu ci mm. wà ci wàllu daara yi. Mm-hmm. waaye damay wax ni boo nekkee ci daara. Mm. di fa jàng. ba xam fa lang fa xam tey mu jariñ la ci sa wàllu diine mm-hmm. su la yàlla ubbilee ay buntu wërsëg da ngaa war a delloo njukkal daara ja waaw dooyam ci nag léeg-léeg nga jël ay saaku ceeb mm-hmm. dal di yónnee ay bito ngi dëwlin mm-hmm. ay suukar loolu dañ koy lekk mu daal di jeex waaye yow ci sa bopp nag ni nga réussiré. Mhm. ba tax nga mën a am as lëf di ko yóbbu ca daara ja mhm. loola nga war a jàngal waa daara ja mais est-ce que boobu yéen doo leen dem di ko présenté yéen tamit daara ja mais ah ngeen jël ko léeg-léeg ngeen def programme boo xam ne yéen dem ne ko waaw diw fii la jógee ca daara ja la jógee ni ni nii ni ni nii mais loolu bokk na suñu programme <laughs> bien que lépp looy def waaw il y a de réussite yoo xam ne ci daara ji lañ jógee. effectivement bari na lool macha allah bari lool ñoo xam ne ci daara ji lañ jógee ñu mm-hmm. réussir. Mm-hmm. ñooñu nag laay wax ñun balaa ñuy ñëw ñun. Mm-hmm. di wax ak ñoom ci dimbale daara. di wax ak sëñ bi ci dimbale daara. ñoom ñoo war a njëkk a dimbale daara. waaw waaye forme bañ koy dimbalee nag. moom laa la wax ni war nañ caa boole. de créer ay entreprise ci biir. def ay centre de formation. mais tey jii ka jàngee kokki. tey jii. mais warul yam ci yëkkati euh, ay saaku ceeb du yónnee. dëgg la tey jii centre de formation. waaw boo xam ne sëñ bu ko créer ca kokki mhm. tey jii waroon na faa taxaw. dëgg la ñuy ñuy jàngal xale yu. métier xale mhm. xam nga sànq wax naa la fi ne la sama sëriñ naar la woon. Mhm. Euh, da daan wax ni ki nga xam ne du yàgg yàgg mu nekk. sëñ daara mhm. wala ilimaan wala conférencier mhm. jarul di ko torturer ci daara ji di ko dóor di ko sonal mhm. ndaxanteel ak moom ba jàngal ko mu man alxuraan di ko tari mu mën a bind alxuraan ah bu ëllëgee nag euh, ko defee ñi nga xam nag dañoo toog ca daara ja waaw nga xam ni ëllëg ñoo war a jàng diine ji ñu fexe ba aussi jàngal leen ay métier waaw métier yoo xam ne buñ ci jógee mën nañ caa toxu mais justement parce que y a des programmes de l'État yuy accompagner loolu AONFP y a des programmes de l'État yoo xam ni mi ngi accompagner loolu loolu moom nangu naa ko waaye programme boobu dafa doyul parce que man damay wax ni état bi daal su bëggee dimbale daara yi ba nga xam ne xale yi dootuñu yalwaani ah. ba nga xam ni ah. sëriñ bi dana bàyyi charlatanisme ah. mm-hmm. hein charlatanisme dana ko bàyyi euh, loolu bu ko état bëggee mm-hmm. daara ju mag ju mu dem na fa créer li ñuy wax centre de formation. dendale ko njàngum alxuraan ma. taalibe yi di jàng fii. di jàng fee métier. loolu état bi mën na ko. beneen bi ci des. Mhm. mu limité ñi nga xam ne ku ci jóg ubbi daara ku ci jóg rek ubbi daara daal di boole sa bopp ci sëñ daara yi. Mhm. te eh, tabaarakallaahu falillaahi alhamdu. sëriñ daara yi itam war a organiser wu ñoom ci seen biir. Mhm. organisation boo xam ne. Eh, ku ci bokkul duñ ko ci boole. Mhm. ndax am na ñoo xam ne ñoo ci boole seen bopp waaye léeg-léeg da ngay dem sax mokkalu alxuraan wa xaw a doy waar. léeg-léeg da ngay dem sax eh, tabaarakallaahu maxaarijul xuruuf ba doy waar lool. jërëjëf yooyu gis nañ ko fi tabaarakallaahu. d'accord xam naa nag eh, dañuy ñëw ci dernier ponk bi nga xam ne nag daanaka tamit eh, naal ngeen ko ndaxte ne nga am ngeen plan d'action bu yaatu boo xam ne bëgg ngeen ko tëgg. waaw tëgg ngeen ko wala ba ngeen ko tëgg la ngeen bëgg léegi ñu jàppale leen ci pour ngeen gën a mën liggéey. jërëjëf ñun. yàgg nañoo tëgg suñuy plan d'action. Mhm. parce que waxoon naa la ne association lañ njëkkee. Mhm. ñu daal ñuy soppi def ñu ONG. ONG nag toujours balaa balaa ñu la ciy jox ndigal. Mhm. di nga indi say programme yi nga njëkk a def ci lu weesu. di indi say programme yi nga xam ni. naal nga ko ngir fas yéene ëllëg nga taxawee programme yooyu kon je pense que euh, euh, loolu doy na tegtal nii am nañu suñuy programme yu ñu tëgg. Mhm. yoo xam ne fas yéene nañ ci jublu. liñ bëgg nag. waaw euh, ci wàllu ndimbal. Mhm. surtout jëmale ko ci état bi. Mhm. moo di nii muy jokkook ñun. ci lépp lu nga xam ne war na ko taxawal ci réew mi. te diine am ci wàll. ñaareel ba it loola. su fekkee ni dafa am lu mu laaj. mu jàppale ñu ci loola. parce que tey jii boo nee CRSD jóg leen. Mhm. ngeen def tournée. ah mun na am suñu budget matewu ko. Mhm. nga fexe ba jàppale leen ci tournée yooyu la. Mhm. ñu war ko def dans tout le Sénégal pour de sensibilisations. ñu fexe itam euh, fexe ba euh, lépp lu jëmati ci lu ñu taxawal. ñoom nguur gi. ñu fexe ba boole ci waa CRSD. parce que kat bu ñu ko deful. bitim réew ñi ngi contacter CRSD. ñu leen di jàppale ci fànn gu nekk. su ma fi toogoon nag tey di limal. Mhm. li ñu naal yépp nag. du ñu fi jóg tey. dëgg la dëgg la li ñu mën a wax rek. Mhm. moo di ni. Mhm. Euh, lu bari naal nañ ko. di xaar situation bu ñëw. am na loo xam ne bu situation bi ñëwagul. Uh-huh. doo mën a taxaw wax ca dara wax ca incha allah kon di ñàkk si yeneen jotaay. Hmm. ñu toogaat ci ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax wax dëgg yàlla waxtaan wi am na solo lool. Uh, imam Ahmed Taaxi Kan waaw kon nag uh, di imam ratib ci Kaolack bokk tamit ci ñi nga xam ni moo di uh, président donc de l' association des imams et oulémas de Kaolack nekk tamit responsable culturel ak scientifique bu CRSD tey ñoo leen doon émission bi tamit ànd suñu sponsor yi nga xam moo di pharmacie nationale d' approvisionnement ak ONAS di leen dig daje incha ci yeneen i jotaay ñu ngi mi leen nga tàggatoo. jërëjëf xanaa sant leen gërëm leen. Eh, ñaan yàlla itam seen taxawaay ci réew mi. Eh, yàlla fay leen li ngeen di def yëpp. dañ leen di suivre saa su nekk. Mm-hmm. émission bi nekk émission bu am njëriñ lool tabaarakallahu. Eh, ñi ngi leen di sant leen gërëm. di ñaanal nag ki nga xam ni mooy CRSD di cadre des religieux pour la santé et le développement. Uh-huh. fi mu bëgg fa di eh, delloo njukkal nag sëñ Saliou Mbacké mm. mi nga xam ne mooy coordonnateur national bi mm. ci taxawaayam bu rafet di sant membre yi nga xam ne ñoo ci nekk mm. te kenn ku ci nekk teewal fa kërug diine waxoon naa la ko bu dee Tiwaawan ak Kawlax maa leen fa ah, teewal euh, bu dee famille omarienne Chérif Seye nga fële bu dee Njaasaan Bu nga fële bu dee Laayeen tabaarakallaahu naka noonu Cheikh Jibril nga fële bu dee dans le sud olama yu nekk dans le sud Cheikh Ablaye Ba ma nga fee boo demee ca lew na ñeseen ñoo sant ma nga fële tabaarakallaahu euh, ñooñ ñëpp ñu delloo la njukkal sargal leen ñaana leen yàlla di delloo nuyoo kilifa diina yi ma fekk ci studio bi tabaarakallaahu muy oustaz Alioune Sall ak sëñ Maodo Faye ak ñoom euh, sëñ Mbacke Sylla ak ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu leen sant tabaarakallaahu jërë ngeen jëf mbokk yi di leen dig daje incha allah ci beneen waxtaan sur seen rajo Sud FM euh, sur seen rajo euh, nes kis nag ñu ànd ak Alaaji Malick euh, ci li nga xam ni moo jëm ci wàllu li nga xam ni mooy xew-xew bi Malick kon nag xam naa rek dañu lay jox antenne bi ndaxte xew-xew bi moo di maanaam ropp sëñ Bouba Diop. waaw wax nga ko Moussa ñu ngi lay nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu actualité bu forte bi loolu la. Hmm. ak Pape Bouba Diop bi nga xam ne tey lañ koy jëbal boromam. mu toll nii sax dag euh, euh, activité yëpp te ginnaaw dem la bañ koo rendre hommage bu mag a mag tey jii nag koy jëbal boromam am na sax équipe bu ñu déplacé fële ci Rufisque ak Babacar Samba Denis Samb. Hmm. xam naa rek boo yëkkatee jotaay bi ñu ànd ak ñoom ñu feer ànd ak ñoom ci lépp loo xam moom moo jëm ci direct fële ca Tëngéej ci li nga xam ne rek moom mooy enterrement kii di Pape Bouba Diop. jërëjëf Aladji Malick